alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad salallahu taala alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi mbokki auditeurs yi ñuy teewlu ci rajo Lamfal ñu ngi leen di dalal jàmm nuñ ko baaxoo def kon alxames bu jot si waxtu wi seen émission yóbbalu taalibe yi ñu am mbégte saa su ne di si ànd ak sunu bàyyi ndongo mbuub waaye xam ngeen émission bi tey dañ si am gan di euh, suñu sëriñ sëriñ Xaadim Ndiaye Kayaax fas yéene waxtaan kon lu jëm rek si euh, yoonu ku géej gi sëriñ tubaa ak tukkeem bi kon si yoonu ku géej gi lu si xew incha allah lépp ñu jëm ko ànd jëm si euh, faram-fàccee kéem sunu dégg-dégg. di ziar bu baax a baax Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd wér. di ziar bu baax a baax Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér. waaye di ziar bu baax a baax sëriñ Cheikh Ngounda Fall muy sunu buntu si maam Cheikh Ibrahima Fall ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd wér xam naa ni sëriñ Khadim Ndiaye tey mooy sunu gan si émission bi ñu jox ko kàddu gi sëriñ Xaadim asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëriñ Bada. aouzu billahi mina shaytaani rajim wa inni ya inniya u'iiduha bika wa zurriyataha mina shaytaani rajim rabbi aouzu bika min hamasaati shayatin wa aouzu bika rabbi an yahduruun bismillahi rahmaani rahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جليلي بوكي طالبي بوكي يخم يني تبو في انتليجان لامفال رواتنا إميسان بوم صلبي فين بلا نينكو وخي نغي كي عندك صباي سنبياي سيدنا دونغ بوك دي سنخارك دي سنلك دي سنمك دي لين سيار باح دي لين ليو تبلا توبي di nuyu mbokk yi nga xam ñoo ni seetaan di ñu déglu ak équipe technique bi nga xam ñoom ñoo àndal ci liggéey bi di wax ni tey nag mooy dibeer di juróomi eh, mooy eh, alxames juróomi fan ci weer wi nga xam ne mooy diggu tabaski ci atum dal tashi atum junne ñeent téeméer fanweer ak ñeent ci gàddaay rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu tombeek nag fukki fan ak ñaar ci mois de septembre 2013 eh, sëñ a jërëjëf sëriñ Xaadim Bay Ndongo asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillahi rahmaani rahim الحمد لله الذي أنعمنا على نعمة الإيمان وصلاة الله وسلامه على أسرف الخلق سيد كل العرب والأجم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفرسان ومن اختدى بأديهم إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا مولانا شيخ أحمد بن خادم الرسول وبعد أيها المساعدون الكرام والمستمعين نحييكم بتحيات الاسلام واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله الين بدر ني نغلي سيار دي سيار سن خادم نياي كيار ميغا خامني موم لا ني دالال تاي غينا بيغا خامي ني سانت نانو بروم بي سبحانه وتعالى موم مينو باخي نو گمكو دي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موغ وا كرم اكي صابام دي نان بروم بي دولي اي گرمم سي مولانا شيخ احمد بام خادم رسول الله سيار شيخ خديل مختار xalifa général di murit di ko ñaana fan gudd ànd ko wér ba mu yeggale yéenam ci liggéey Cheikhul Khadim te nu ànd koog moom noonu la ñu saare sëñ Ousmane Mbacke mi nga xam ni mooy suñu bunt ci xaadimal Moustapha di ko ñaana fan gudd ànd ak wér di saare mboolem njabootu Cheikhul Khadim yépp di saare sëñ Alioune Thioune mi nga xam ne liggéey bi ci moom la ko saa borom jaarale di ko ñaanal suñu borom defal ko mébatam ci liggéeyal Cheikhul Khadim noonu la ñu saare sëñ Ibrahima ak eh, sëñ Khadim ak sëñ Jiili ñoom ñi nga xam ñooy saytu liggéey bi waaye ñoo ngi siyaar bu baax a baax sëñ di Thioune kon Alioune ñoo ngi siyaare mboolem ñu ni seetaan. jërëjëf Baye Ndongo ni ñu ko waxee rek Serigne Touba ak yoonu géej gi yoonu géej gi xam ngeen ni ñu ngi si weex wi si wàllu wàllub calendrier miladier xam ngeen ni kon lu jëm si wàllu weeru septembre daanaka si la xew-xew yu bëri daje woon tàmbalee ko si 5 septembre bi ñu génn ci ndax ba si 15 septembre euh, ba si kon euh, ñaari guddi Dakar yi nga xamante ne am na ko ah, ba si 21 septembre bis bi nga xamante ni jàpp nañ ni si la julli woon si géej gi doon ay date yoo xamante ni Serigne Touba saa su ne ni ñu koy waxee man ma naan euh, dafa dafa mel ni àjjana rek ndaxte àjjana nee nañ saa soo fa duggee saa soo xëyee day mel ni tey nga fay doog a dugg si neex it Serigne Touba saa soo xëyee di ko waxtaanee bis boobu day mel ni lay gën a lay gën a neexaat si yow bu baax a baax kon nag duñu noppi di koy di waxtaanee Serigne sëñ sëñ Xaadim sëñ Touba ak yoonu géej gi suñ ko waxee li ñu bëgg a jëkk xam mooy sababu yoonu géej gi lan mooy sababu demuk sëriñ Touba si géej gi. Euh, jërëjëf sëñ Bada am naa ni nga ko waxee rek dañuy doon gànd ci ñëpp rek. nga xam nga ni taarix moom dafa xaw a doy waar suñ dongoom toujours ñu ci waxtaan ci mel noonu ndax euh, jiwoo da ciy xaw a bari dégg ni it da ciy xaw a safaanoo waaye yenn saa yi sax nga dégg koo xam ni day wax ni gars yi ñoom yoonu géej gi la ñuy waxtaan yoonu géej gi la ñuy waxtaane mm-hmm. te xamul ni maanaam jëf ju rafet du sàppi mm-hmm. mu ngi aju ci yow yow mi koy wax na nga koy waxee rek ak dañ ca mën a jële waaye ndax yonent bi boo jëloon siiraam wax fa mu a jamono wax na mu ganee jamono topp ko ba mu jeex su ëllëgee boo kenn waxee noonu la koy waxee rek mm. kon mbir mi du sàpp du mbir te lislaam it sëñ dong toujours dina faral di wax loolu lislaam loo la mm. amul lu yees lislaam amul dara lu ci yees mm. lu mu mën a doon lu mu defa koy defaat dong lay mën a doon ndax defe naa na nga jullee woon tisbaar démb noonu nga koy jullee tey sa njàppum démb na nga jàppoo noonu nga jàpp tey kon lislaam amul baamu amul amul amul lu yees baamu rek lay doon kon nag bu ñu ñëwee ci sabab bi ndax lépp loo gis daam li kulli sabab bi moo di ni sëriñ bi bi mu ñëwee Touba yàlla dogal juróom-ñaari at la fa am ju atum mu mujj ci juróom-ñaari at yooyee xam nga amoon na fa boo nga xoolee ñeenti kër kër gu jëkk gi mooy fii jumaay ji nekk këru ñaareel gi mooy Daaru Xuddoos këru Daaru Xuddoos yi këru ñetteel gi mooy fii sañ Chouaïb bi Mbàkke dëkk kër sëñ Touba la woon këru ñeenteel gi mooy fii kër sëñ eh, Bachirou Mbàkke dëkk tey këru sëñ Touba woon kër fi ba Basirul dëkke moo doon daaru Minam ba léegi turoo moo wéy mhm. fii sëñ euh, <coughs> soin bu dëkke woon moom na sëñ Tuubaa tudde woon daaru Rahman mhm. xam nga kër googu ginnaaw bi sëñ bi jógee sëñ Baara Gay moo fa moo fa dëkkoon bi mu demee ci géej gi ginnaaw bi nag kër mooy kër gi sëñ laxat jëkk a sañc Touba 1932 la ko sëñ moom Moustapha jox mu sañc fa dëkk fa mhm. kër googu mujj gi danoon ko woowee këru naar yi ndax am na nag sabab net ni woon ñaare naar yi daan seet sëñ Touba li ëppoon foofu la daan ñëw sëñ bi daan leen fa daal mm-hmm. moo tax mu mujj ñu tuddee ko kërum naar yi fii jumaa ji nekk fii la waa kër gi nekkoon diggante soxna Aminata Lo diggante la soxna Awa Bousso diggante soxna faati Diop ak ñooñu rek waa kër ga mm-hmm. fii nag daa daaru xuddoos mu defoon ko bibliothèque lépp fi la daan bindee nga xam noonu la sëñ Tuubaa daan baagante kër yi mm-hmm. léegi nag juróom-ñaari at yi mu am Tuubaa at mu mujj ma nag yàlla dafa dogal koor googee nga xam ne moom la mujjee woor Tuubaa mu woore ko foofu ci daaru xuddoos mooy kër gu daal xuddoo gi jàkke jooju nga xam ne moom la sëñ mbàkki madina yeesalaat nga xam da koo yeesala waaye jàkke sëñ tubaa la woon jàkke joojee fa la sëñ tubaa dugal itikaaf ci ajjuma eh, ju mujj ca weer wa nag la ko yonent bi salaa sam feeñu doon ko tappal garaatu xut bu xawsu xam ne loolu sax kii bu gudd la waaye pour pour sabab bi rek bi mu yonent bi yonent bi nag loolu saa yuy ñëw di ko tappal kenn day ànd ak jibril ak malaaka ahlu badrin yi ndax ñooñu ñoo àndoon ak moom ci liggéeyam loolu moo tax ahlu badrin am ahlu badrin dafa nekk ñaar am na ay nit am na ay malayka mm-hmm. nit nit ña fekkoon badar am na li limu malayka yu fekkoon badar léegi nag yonent bi ba mu ñëwee nag di ko tappal sëñ bi sëñ bi da ko wax ne ko lii nga may jofal baax na waaye am na lu ma ko gënal mm-hmm. yonent bi ne ko lu la gënal mun ko ma bokk sa mbooloo mi nga àndal te muy ahlu badrin te loolu li tax mooy su ma bokkoo ci ñoom du ma teqalu ko yow léegi nag ba mu ko waxee yonent bi ni ko ah, garaat bi de képp ku ma ko mos a jox lii la may wax waaye la suñu borom tege ci ay tege ngir mu am loola day diis gan ba ba du ko man mhm. te yow toll nga ci man foo xam ni su ma soñoon doo dugg ci mbir di ci dellu ginnaaw mhm. sëñ bi ni ko man man moom ma sama xoo xawma lu may dund waaye suñu borom mi ma sàkk bu ma bàyyee may dund lu ma teg attan mhm. noonu la yëf yi demee nag loolu moo indi sababu géej gi ndax ndax loola comme fekkiwul badar ba man caa bokk badar wees na kon nattu yu nattu ay nattu moo koy wecc mhm. te nattu yooyu nag da cay wéet loolu moo indi tukki géej gi mhm. waaye loolu nag ci loolu lépp daal bi nga xamante ni yëf yi wax ji topp topp nañ ko noonu di ca wax di ca wax di ca wax yont bi mhm. di ko wax nii di ko wax lii muy jóge suñu borom ban déggoo danga teg ni ko nag léegi nag loolu de am na waaye am nga ñaari gàllankoor benn bi mooy yaa ngi tuubaa te yaa waxoon wajal xarimana xariman amina bukun mm. bi xifdihi kafilan damina fekk na boobu bindu ma dom foofu ba noppi mm-hmm. ndax yaa ne woon naa aar tuuba bu fi natt ñëw mm-hmm. te yaa ngi ci biir tuuba kafilan damina kafilan damina bukun bi xifdihi gis nga yàlla def ma nekk sa wattu kafilan damina wattu goo xam da nga koy da koy matale warlul ma ko ba dara du yàq mm-hmm. te kon mu ngi tuuba mun nga benn baa ngoog ñaareel bi sa ndijaay Ahmadou Bousso sëñ Ahmadou Bousso mooy waajur sëñ Bàkke Bousso mhm. Hmm? Mhm. mooy waajur soxna Awa Bousso mu sëñ Fàllu mhm. waajur sëñ Fàllu léegi nag mu ni ko yaa ngi eh, moom day àgg na ci Ahmadou Bousso àgg na suñu borom àggin woo xam ni su natt bi ñëw dana ko yëg te dana xam ne ci yow la jëm te réyaayu natt bi dana tax mu ñeewantal te dina ñaan suñu borom suñu borom dina ko teggi kon ñaari gàllankoor yooyu nga am loolu nag moo taxoon sax benn bi mu génn Tuubaa ñaaral bi ba mu demee Mbàkke Bari weer wa ci toppaat tuuti rek ci la Ahmadou Bousso melaw waaw léegi nag foofu it sabab boobu bi nga xam ne loolu am na ba léegi yoon wi taxaw na ci la Sëñ Tuubaa jëkk jaayante ak yonent bi daan ni ubaayi'ul yawma ar-rasul al-mustafa bi xidmatin wa asalu as'alullah al-wafa bis ni ki tey maa ngi jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye jaayante gi nag du jaayante xeex ndax saaba yi dañoo jaayante woon xeex man nag jaayante gi jaayante xidma la muy liggéey waaye nag maa ngi ñaan yàlla mu mate nekk yàlla bëggee ñaanit yàlla ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi bëggee bis boobu la sëñ tubaa jëkk jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy jaayante ak liggéey gi nga xam ne moom la fas yéene dugg ngir liggéey loolu tax nag ba nu ca ca kori ga mm-hmm. la woo mag ñi ba nu ñëw mun leen lu fi waaye amoon na ko waaj ndax dëkk bii du dëkk bu may toog mm-hmm. booba moo tax ñetti fani kori lañ ca teg rek ci la sëñ Tuubaa nag day dem na géntu ba kon sabab bi daal mooy baxoo bëggoon a bokk ci ahlu badrin taxoog yonent bi mm-hmm. te dara mën koo may lu muy ay nattu loolu moo tax maanaam mu yonent bi daal di wax nag ñetti mbir mm-hmm. daan ni génn gii ma génn dara sababu ko hmm? lu muy ramu ramm sama nit mm-hmm. dara sababu ko lu muy ma liggéeyal yonent bi saasam fe kenn musta liggéeyal moo tax mu tudd dawme ma ñetteel bi ma eh, am daraja joo xam sama borom kenn du ko am ku dul man. Mm-hmm. noonu la demee noonu la demee noonu la demee Baye Baye Ndongo dégg nga sëñ Xaadim nu mu ko faram-fàccee. Mm-hmm. ndaxte eh, garaadu xut xutbul xawsu. Mm-hmm. di ko takkal mu ne eh, li baax na waaye bëgg naa weesu fii muy am garaatu ahlul badri ñi nga xamante ne xëy na kii nga ba noppi. li mu ko waxee kon bokk na si sabab yi maanaam ram mu aw xeetam ëllëg Baye Ndongo. jërëjëf sëñ Xaadim. xam nga Serigne Touba mbiram yépp da ko doon na ci sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nga ni yéen a jure jooju mu am moo waral mu nangu natt yi ñu ko teg ndaxte nee na sahida lillahu inni waidun min ahli badrin maana ani jaidu kon loolu mu dun wut bayit bi moo la firndeel Serigne Touba dem na ba am ko yàlla seer na ni kenn laa ko bokk ci waa Badar man xadim rasul kon martaba mu dun wut ba tax koo jóg dem na ba am ko gis nga bi mu bàyyi koo Touba moom Cheikhul Khadim li ko xarit Xaadim waxee nga xam dekk na fi juroom ñaari at bàyyi koo fa jaar mbacke bari jóge fa jaar lugo jaar Ndar jaar dakar dem ci geej gi serigne touba tankam jaaratul touba mm. ba ni ko sama Samba geebu bu mu Jolof dem ko sëñ abdourahman lo sax da sunu borom da ko ni bul xol garabi touba da muuru mm-hmm. nga xamni ne ñooñu mu nekko la itam kenn ku ci ne fam la tegen dang ko mat sëkk sëñ sëñ Lo bi ngan gi amé Daaru Salaam demul te ndaam serewul ak Daaru waye da na sama ndigal mo doon toog fii jàngale hmm. kama ko joxoon joxaatuma benn ndigal kon nag maa ngi fi waaye bàyyi ndongo li ma jaaxal mooy natt yooyu niñ ko waxee ni mu diisee ak ni mu bare dara jarul dara dara dara taxul woon mu koy mu koy dëkku ngir daal di ram aw xeetu waaw nambaatu ko maan ala kadin ba daa nee na dama leen di yeeni la jëkk may am ngërëmal yàlla jaar naa ci nag coono yu metti hmm. xam nga Touba ga mu sanc mu di dëkkam mu bëgg ko lool bokk ci natt yi borom ko bu fa jaarati mu dem ba kibaar yi nekk fa ba ndigal bàyyi koo Mbàkke Baari mu war a dem Ndar jëm ci géej ci la waxee nii euh, xarat yow ma sabti saaminu asar li xidmatil muxtaari fi sari safar génn naa Mbàkke Baari bisub samedi fukki fan ak juróom-ñett lu ma tax a jóg ngir liggéey la Seydina Muhammad sa alayhi wa sallam liggéey boobu nga xam ni ci la Cheikhul Khadim jëla tey may yi nga xam ni ñi ko yaakaar ñëpp seen yaakaar du tas ndax waxan na ko suñu Khadim nee na talabta rasulillahi lii foo ko mat la bi waraja lam yu xëy bi damay jaamu yàlla di sàkku ci saa borom ci daraja njol màkka ba jàpp ne man sëñ Bàmba li ma sàkku doy na maa ngi ñu ma yaakaar njol màkka sàkkul ma lu gën a kawe la ma doon sàkku kon yaakaar ci yàlla du tas mbàkke bari googu la ndigal moom Cheikhul Khadim bàyyi koo fa jaar jeewal waxtu tàkkusaan la ñëw jeewal julli sëlmal ah nasaraan bi soññ ko muy leen ki ma a ndigal naa fi julli tàkkusaan nee naa fi julli timis julli timis sëlmal ñu soññ ko mu ne ki ma joxoon digal naa fi julli timis nee naa fi jullee gee julli gee sëlmal ñu soññ ko mu ne ki ma joxoon digal naa fi jullee gee kat nee naa fi jullee fajar ah kilifa tubaab yi na ko noonu nag duñ fa xaar fajar ndigal moo nu indi te daa mel na ngaa lal bañ dem di nga ñëw nu yóbbule ci ni ñu ko bëggee mbaa nga yóbbu ñu yóbbule ci ni ñu ko mënee sëñ bi ni leen xawma foog ngeen seen kilifaam de bu mu leen digal ngeen def ko man ne waaye man ne ki ma digal li ma sant laay def ci la ñu gaa yi jël seen gànnaay jëm ci moom ahlu badara wàcc yëkk la nu may guddi gi ba gaa yi gisante wuñu sëñ Tuubaa fa la fanaan di def eh, ay yalla am ba ba set ba mu naaj ñu dugg jige fofu hôpital jëm Louga jóge Louga am na mbokk yi dajale ne ko sax ñu tal jiar o sëñ Tuubaa ne ëpp na def jiar bi nga xamni ñol mak defal nako muy bakkan rayante jeex kala jiar bobu jeexal ñol mak dañu dani saaba jiar ju ndaw ji jeex na léegi noo ngi jëm ci ju mag ji ñu ko ya rasulullah jiar jo xamni bakkan day teud nga ñak say soxna ñu la say dom jirim nga ñak say alal won aduna ginaaw ana ji ko ne bi leen ci ko gën a mooy xeex sa bakkan ba tere ko lu yàlla boobu la sëñ Bamba jël na jaat jooju muy xeex bakkan ba not ko ba lépp lu yàlla gërëmul doo ko def ci la waxee woon ni fi ma xamee ne man Seexul Xadim maay not nasaraan bi sama bakkan laa jëkk xeexal ba not ko te koy xeex bëgg bakkanam bokkal ko xeex bañ bakkanam ci laa xamee tubaab bakkanam képp la bëgg te man sama bakkan xeex naa moom ba not ko kon sama jàkkaarloo moom dinaa ko duma bàyyi ko Louga ñëw ndar def na fa ay weer ndar googu Serigne Touba gàmmo na ndar googu Cheikhul Khadim bi mu ñëwee fekk na fa ñoo xam ne tubaab bee leen woo ay kilifa yu diine li muy siñalu mooy lu yàlla gërëmul rek sëriñ sépp siñe ko dagan na ci ñoom nag ndax eh, Alioune Badara am na lu ma di leeral lekk medd am na fu muy daggane ci lislaam foo xam séeréer dañuy wax ni boo xiifee bay bëgg a loro daggal ci xar mi dee mi lekk bu suur wutub yóbbal boo gisee fa yalwaane ñu sarax la mu doog a araam léegi waaye nag sëñ Bamba moom fu mu toll ci maqaama lekk mi ak araam na ci moom ci bépp jamono. moo tax ba ko gaa yi lekkee l'islam condamné wu leen ndax ñoom xiif ba ñu xiifan ak fañ toll woon dañoo jëfandikoo fa ñu toll ci sariya sëñ Bamba nag weesu foofu moom mañ ko jëfandikoo ndax bokkuñu maqaama mm-hmm. ba mu ñëwee ndar bureau gouverneur gis nga le 5 bi weesu mm-hmm. lañ koy fàttaliku mu julli fa mm-hmm. wax nañu ne ba mu jullee ba sëlmal sëriñ sépp dañ ne dee nañ ba noppi fii ci góor gouverneur nga xam ni ña fa nekk ñëpp ndigal la ñuy déglu moom mu ñëw kàbbar te ñaar rakkay yàgg lool naa fi la waaye waaye daa yàgg de ba mu jullee ba sëlma dana wul bi ana ko ma woo ci yéen borom dara bi ne entrepreneur bi lu mu wax mu ko dafay laajte ko ko woo ci yéen mu ne ko nee ko maa ko woo waaye bi mu ñëweek léegi li ñu gëm naa ko def na fi ñetti erreur moromam yëpp dañ sumi seen mbaxana ormal béréb bi màggal ko nuyu ma moom nuyuwu ma ñaaral bi julli na sama tam te man bëgguma julli ñetteel bi laabal na ko ndox te man fii sama bureau la sañ tuwaa ne entrepreneur bi yow nag lantinoor nga lantinoor du téyeeg jiw lu ma wax nag ma ko wax waaye lu ma nanga ko ko wax mu ne ko nee na sa morom yëpp déggal mu naa ko sa morom yi réeré na sëñ Bamba waaye bi ne ko nuyoo na waaye ko nuyuwul ndax nuyoo diggante jullit ak morom la boo demee ci téere ba sëñ Tuubaa ba mu nuyoo def ni asalaamualeykum mooy nuyoo diggante jullit ak morom ma sëñ xam ne mbooloo mi am nay naafiq ami yéefar ami jullit mu ne asalaamun ala man tabi al yàlla yàlla dem ci ko nanga topp njigu yàlla nasaraan bi génn sëñ Tuubaa ne ko nee ko nuyoo naa dama ko nuyuwul mun ko neena na bi ko ñaareel tax nga julli bi doon te moom bëggul julli sant wa ne ko ne ko yalla sa borom daf ma sant julli sant ko ko man nang mom mu gantu na ma wax tolam ak tolam sa borom fu ñu digol ma bàyyi fa tolam dem ci tolam sa borom borom dal ni ko yek fi sa biróom le sa biróom le sant wa ne ko ne ko day katch sëñ bi la borom dal bi fëgg dana bi ko xana xamul ni am mu dabil umur man ko kasafta wala mu dabil umur la mm. ki di mbiri du faatu koku moy huwa malikun huwa nafi'un هو الرافع وواسع وهو المل... هو ها هو الجميل المجمل مالك لو سرق ناخذ من وحده كوك مو رب السيتي فوف نا ني سانكو سان بيلم بي سنتو دام بيلم با سانكو بروم دام بي بروم دار بي بيلم بي سنتو عليكو نيكو خليما غوغو دا بيند فن تخليما غو بيند فن دوما سي بنت دغ تما دغ لاي بيند نجيلكو بيلم بيس مو دوكو كيتغا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يلد لكم لوك فنان ني كي بيند دغ dal koy dem dal koy dem ba nangu teew ko foofu dinañ ñëwaat nga eggalil ñu fan la jaar ak tubaab bi si li des si ndar ndaxte ba mu noppee tubaab bi am na lu mu ko tontu ba am na lu ñu fa jëflante dinañ si ñëw bàyyi donc sëñ Xaadim xam naa ni li ma bëgg mooy sànq li nga wax nii am na ñaari mbir yoo xamante ni kon li mu bëgg kat mënul amee fekk mu ngi nekk biir Tuubaa ndax touba nim ko ñaané na doon barab bo xamné barab buñu euh, sañ la buñu buñu buñu ñu bo xamanteni dara du fam waye waaye te nijaayam ji nga xamanteni bobu boobu mu ngi mu ngi mu ngi dundu te euh, tollu na ci xamanteni xeyna euh, dina tax lim bëgg natt yoy du wala wacc kaw tax na kon mu dal di genn touba dem mbàkke baar yi touba ba mbàkke baar yi seen wa xam nga bi mu touba euh dafa ñew mbàkke baar yi hmm. xam nga sax ñu ci histoire bi bari na yu sax yu ci am ci biir yoo xam ne xañ na duñ ci sori ndax ndax ndax taarix bi sax wane na ko moo di ni sëñ bi li ñu xamul mooy jiitu muy dem Mbàkke Bari tubaab bi dem nañ ci moom ba wax mbirum sëñ bi ni mele Tuubaa mbooloo maak yooya mm. ba tubaab bi yabal taw pour mu jéem a taf kër yi mm. sëñ Xaadim ñan ñoo xoo ñan ñoo demoon si moom boole ko ba xam ay moroomi tubaabam la yónni woon wala ay armée wala ñu mu bokk léegi daal ñu ne tubaab yu ñuul yi la ndax ñu doon jaxe sëñ bi ñëpp du benn tubaab bu ko jaxase ay ay ay ay nit ñu la fi nekkoon maa Abdouloo ca la bokkoon maa Abdouloo ak Dudu Mbay ñoo bokk bàyyi hmm. Dudu Mbay santul Mbay loolu bokk sant ku neex fara biram loo mooy seen bàyyi ñooñu bokkoon nañ si ñu doon ah, jaxase tubaab beeg gisoo sàmbaloo bi sax kii maanaam kii sàmbaloo bi hmm. maanaam comme moo nekkoon na moom fi sëñ bi bi sëñ Tuubaa demee ci tukki bi te dajeek du Mbay Dudo Mbay mu ngi wax euh, euh, sëñ bi naa ko sama mbokk ma nga bàyyi fële mooy maam Abdouloo mhm. naka sama mbokk ma nga bàyyi moo jaxas bi tubaab bi waaye boo ñëwee fi ci géej gi man ngay fekk am na sabab bu tax dañ ci ñëw ci kanam waaye mhm. Mhm. bi sëñ bi nag bi bi nekkee foofu ba loolu am dafa yab yabal sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso daa ko wax daana wax naa man digënté bi sëñ bi tubaab bi jàppee sëñ ba yóbbu ko bett na ma lool ndax bi nga sëñ bi yabalé sëñ bàkk bu sa dem booba yow yónni maam Thierno Ndar booba sëñ baa ngi mbàkk baari waaye bii sëñ baa ngi Touba loolu ci atam yu jëkk la ndax bëggu bëgguñu woon mbooloo léegi nag sëñ bàkk bu sa bi mu demee leeral tubaab bi ni sëñ bi nekk yépp la ko ni man waxewun ma woon noonu mbiram kon na mu nekkoon na ca nekk te sëñ bàkk bu sa daan wax daan wax na moo tax bi mu ñëwee mbàkk baari ba tubaab bi jàpp sëñ bi yóbbu ko rek moom danaan wax naa man fi damaa bett ndax diggante bi ni nit ñi mën a demaate ci tubaab bi jaxasewaat ko sëñ bi ba ba mu ñàkk wóolu mbiram loolu day na waar mm-hmm. léegi nag jamono yooyu nag la sëñ bi nag jóge nag eh, comme ni ma la wax bi mm-hmm. daal di jël aw yoon tànn am ñu mu jël waaye ñu ëppoon ci ñu yóbbaale woon bokkoon na ci gone yi gone yi ak yenn ci ay mag yoo xam ni yóbbaale leen mbàkke baari mm-hmm. ñenn ñi nag dafa xaaj ndax mbooloo mi ko toppoon yëpp mënu leen yóbbu mbàkke baari ñenn ñi da leen jox sëñ Daam Rahmaan Lo ñenn ñi mu jox maam Thierno ñu toll ci kii sëñ Touba dem nag euh, Mbacke Bari mm-hmm. bi mu nekkee Mbacke Bari bi euh, bi mu nekkee Mbacke comme ci Jolof la diggante Mbacke Bari ak Touba juróom-benn fukki kilomètre mm-hmm. ndax sëñ bi génn na Bawol léegi mu ngi ci Jolof mm-hmm. te booba bu euh, Samba la moo fa léegi nag am ñu ñëw ci Samba wax ko ni ko am na ku fi nekk tàmbali wax lu nekk Sambalaw bi ñëw gane bi te lii ma lay boo demee ci discours Cheikh Amadou Fadel Mbacke di ko ci dégg gis nga yéen ba mu ñëwee sëñ bi eh, ñu tàll eh, Samba Laobé berndeel ko bernde bu rëy ci biir ci biir fan yi mu fa am ci la fa maam Abdoulaye ñëw. bi hmm. maam Abdoulaye ñëwee maanaam Samba moom gis na ne li ñu waxoon ci sëñ bi moom xam na ne moom amul. amul de mu nekk mu nekk fa. maam Abdoulaye ñëw ba noppi nag mel ni ku ko ne sëñ bi fekk na raj la day am lu muy wisit di seet. Hmm. léegi nag ci jamono jooju nag Samba moo tax ba mu delloo dafa daal di waxaat dëkk yu mag yi nekkoon Jolof yëpp mu dajale leen ni leen sëriñ bi ma doon wax. li ma doon wax ci moom dara amu ci. Mhm. léegi bëgg naa dëkk bu ko ameel teraanga tey soo légee nag beneen dëkk ameel teraanga tey. ëllëg waaye loolu tax wéyul mooy sëñ Tuubaa moom du jul jëfandikoo alali buur. Mhm. noonu la nekkaat ak moom waaye problème bi amaan diggante ak moom mooy at moom nga xam ne ci ci jamono jooju fa sëñ bi nekkee. Mhm. xam nga sëñ bi mu ngi fa nekk kori. diggi tabaski tamxarit weeru màggal teeru fukk fan ak juróom yi ñeenti weer la am bari ak ak juróomi weer mat waaw léegi nag ci jamono jooju nag 1895 boobu ci la sàmba fayu ko lempo bi hmm. bi mu fayu ko lempo bi daal koy lekk hmm. tubaab yi laaj ko mun leen man kenn mun joxuma dara ndax ñi ma war a jox ñëpp dem topp nañ Ahmadou Mbacke wax noonu <laughs> loolu mooy problème bi ngir boo bokk waaw léegi nag <laughs> bi loolu waaw bi loolu amee xam nga 1895 la hmm. yàlla dogal sëñ bi dem ci tukki bi ci misaal 96 mu fay ko at lempo bi lekk ko <laughs> bi mu ko lekkee tubaab yi ne ko nag yow amoo aw lay <laughs> wenn lay woo mën a wax tey amul ndax yow sëñ bi nga doon wax te léegi moom ne ba mu fi jógee kenn xamul kañ la léegi nag yow lii la la la def lii moo defoon loola <laughs> léegi nag ci jamono jooju nag ñu wàcc sàmba lii ma lay wax demal ci leeralu Cheikh Ahmadou Bachir bi mu bi mu wàccee sàmba sàmbaloo bi dafa jël aw yoon dem ci sëñ sëñ aadama Gueye hmm. sëñ Adama Guèye men ba mu ñëwé ci mom ni man kat dan ma wacc ma bëgg falu sëñ Adama Guèye ni ko demal jolof nga tibb fa suuf andil ma mu dem jolof tibb suuf andil sëñ Adama Adama lam wax ci suuf sa da ko ni sëñ bi sëñ tuba lay wax de samba mi dafa bëgg falu kon fal ko da koy li ci suuf sa ni ko soo demee nga sotti ko jolof bam ko sotté yagul da ci la ko tuba bi falat <laughs> mais nak comme def na erreur bi mu def ñu ne nag léegi loolu bala ñu koy bàyyi muy wéy ak boppam ndax ki def li ñu euh, buñ ko bàyyee mën a def beneen njaaxum kon nañ ko yóbbu génn ko fi jàngal ko tumuranke tuuti ba mu ñem tumuranke su ñëwaatee lu ñu wax dina ko def loolu moo taxoon ñu boole ko sëñ bi 1896 waaye moo ko sëñ Tuubaa ànd nu Samba moo ko fekk Samba ko fekk Samba ko fekk euh, ci tukki bi bi léegi nag loolu diggante boobu na sëñ bi nekkee foofu ba loolu am nag comme coow li am nag nangam ca la sëñ Tuubaa daal yebal nag euh, maam Thierno comme ni ko xamee. Mm-hmm. maam Thierno dem dikkaat yow woowu mu ñëwaatee nag ca la tombeeg sëñ bi fekk am na ndigal ba dem. Mm-hmm. foofu sax li fa bëgg a leeral bala may jox bala ma lay jox mooy mm-hmm. di nga gis sëñ Tuubaa bind a safar. am fu muy bindee xarajtu yow ma sabti. saamina asar dëgg la dañu génn naa ñeenti fan ci weer wi. fee mu ne génn naa. fukk ñeent Hmm? fukk rabi rabi rabi ñeent ñeent waaw rabi asar fukk ak ñeent waaw non rabi rabi safar xarajtu ah. rabi safar ah, ah, waaw ñeent ñeent fan hmm. ci weer wi safar hmm. fee mu ni xarajtu saamina asar génn naa fukk ak juróom ñett xam nga li ko waral gis nga ñeent fan yooyu ci weeru weeru weeru weeru weeru safar waa bisub gaawu la tombeel sëriñ bi ja takk takk ay bagaasam ndax moom moom bëggul lu muy dem takk Mm-hmm. ndigalu sunu borom waaw samedi boobee mm-hmm. ba mu dellusee ba dellusiwaat moo tombeek fukk ak juróom-ñett yee mu dem mm. moo tax tukki booy boo gis sëñ waa wax rek bis bi mu amee ndigal rek mm-hmm. ca la bis ba tàmb tey yëf la tàmbali fi na gaaw boobu mu nga xam ne ci la jógee Mbàkke Bari ca la yoonu géej gi tàmbali donte demagul Gabon da génnagul Sénégal moom yëf yi tàmbali na moo tax kon eh, ba bis ba dellusee ba dellusiwaat nag moo tombeek fukk ak juróom-ñett nag mu door am ndigal nag silo juga sila joge mbacke gabaari dar kon jeewol geeg gëna ba seen dara fi bàyyi dongo tolloon sànq moo mu bind kon asar bi nga xamante ko tey bu jotee mooy màggalu Touba gi nga xamante ñu koy sax waajal eh, eh, jamono ji boobu 10 août mm. le 10 août la tombel ah 10 août waaw fukki fan le 10 août tombé fukki ci wala si waaw samedi 10 août la tombé tombé fukki fan ak juróom euh, ndax sëñ mu ndar le 12 mm. le août ñaar fukki fan ci wi mooy hmm. mooy mooy kon benn fan bi mooy li mu fanaan jéewal li mu ko doon ah. leeralee doon hmm. sànq baa ndongo hmm. dugg bureau bureau bureau gouverneur def fa ñett yoo xamante ni gouverneur mi nga xamante ne nee na mooy yilif xaw ma ndar ba ba ma ko koy waxee <laughs> bëggu ko gis nga Serigne Touba ni mu ko tontu wan ni ko fii kat doo borom ndaxte suñu borom moom mooy mu dembi loolu ko mawul bi ni nga ko waxee sànq ah, bañ noppee lan mooy réaction lan la gouverneur yëngatoo moom it ah xam nga li ko sëñ Xadim waxee léegi sëriñ bi daf ne eh, wa maqaaluhum inni ujaahidu sahir saadiqun waaye nag indi loo ci lay jëlla ujaahidu mm. kon donc amal nañu dem ci borom ndar bi di ko wax ni ko sëñ Bamba dee préparé guerre xam nga buur Sine Kumba Ndofféne eh, moom gelor la mm. bokk na ci ñi nga xam lañu seede woon sëñ Tuubaa léegi tey mm. mi ngi gis njariñ la moo ki bokkam moom bi ñu kalaamee sëriñ Tuubaa ni ko dee préparé guerre ndax am na mbooloo mu ko gëm bu ñu laajee lemp ñu bañ lañ yor moom lañ koy jox ba borom ndar bi gëm ni loolu am na bu sim ko mënu fi dégg ko ni ko ki la wax lii waxul lu am ndax sañ Bamba lim bëgg bëggunu ko lim bëgg li bëgg bëgg ko nun naa tax nuy xeex lu dul yàlla du yonent bi du téeréem bee nekkul itteem man nag nanga damaa tayle sama manto man buur sim ko mënu fi nguuram sama manto mhm. nanga naa koo tayle mooy nguuram waaw mooy nguuram rek mhm. lii ñu wax ci moom bu dee dëgg nañ ma rey te bu ñu falati kenn ku sant Juuf yow borom ndar rek bi maam di mom dar man sa maam bayi ngi mom sin bi sa di mom dar sa baay ngi mom sin bi ngay mom dar ma ngi mom sin gelor la duma ma fen mu du mbàkke wul guerre ñu yabal ko bi mu daru daru euh, daru ma nan sal sol dalé botom bi mu jubé señ bamba da sumi dalé yi daal di yëglu sëñ bi ne ko kan la mun ko may ko mu ndóofin mi ñu denk sin bu ko non may sin du ko yi na señ bamba yalla rek la ci xam mu ko doon say tànk mënu ko diw dafa dem ci borom ndar bi duma ko wax ndax xam nga rajo la télé mm. te koo xam sama ma defal loolu mu xaw a ñaaw mm. jëru jaar ca turwa mm. diw dafa dem ci borom ndar bi wax ni da ngay préparé guerre man nag mbàkkee weddi naa ko télé naa fa sama mantu nee naa li ñu wax bu dee dëgg nañ ma rey sëñ tuwaa ne ko saa baaraam ne ko ndax daa nga maa xam ba dem ba dindal tuuma mun ko mbàkkee xam naa la lu dul yàlla du yontu bi sa téere bii taxulaa jóg te nu àddinaa tax nuy xeex jamono jooju buur seen doonul déedéet boo caddu xam nga ceddo dafa mën ci réew mi ceddo mooy ko xam ne gëmul dara waaye boobu loolu fi bari su maam yi ci la loolu la ñu nekkoon am ngor seere sëriñ waaw moom daal am na am ngor daf seen ngor maanaam du ñu fen gelor du fen mukk du wor loolu loolu daa bokk ci li nga xam ni diina amuloon ci ñoom waaye ngor dafa neen ci ñoom du ñu wax lu ñu dul def du ñu du wor du ñu nax nit dëgg rek kooku mooy gelor bi mu waxee loolu nag ñu ko mu dem ni sëñ Bàmba xam naa li ñu waxante dana amu ci waaye Mbàkke damaa bëgg nga dimbali ma ab ceddu baaxul te sëriñ ab sëriñ simple nga yow. Mm. fii ne ki wax wax ji eh, dina ko jaral su yegee ni ñëw naa fi mu nekk ba digg guddi mu yebal fa ay jël ay gànnaay sotti ci kër gi. Mm. su ko defee su borom ndar bi yeblewaatee fekk fi gànnaay yi day mel li wax dëgg la. Mm-hmm. leen rek laa lay ñaan sa taali bii jëlee mu ci fukk ak ñaar ñu garde kër gi. bu guddee bu cedd yi bëgg a ñëw sotti fii ba ay ay gànnaay loolu du mën a sotti. Mm-hmm. sëñ Tuubaa ko seere bi nga ma seere ci kanam borom ndar ba te muy dëgg bu saa borom jëlee siraat gàcc ko ci jahannama tëj ma rek malaaka teew naa la seere ci kanam yàlla ak rasulullahi bu sin dugguloon ci diini ji waaye bëgg bëggal suñu bàmbu jox ko boppam moo ko suwe mhm. sëriñ bi nag eh, daal di mhm. jàmmaarloog eh, borom ndax mhm. waaw daal ci la wax ne kabar takbiran nafa idaya kabar ba ma kabar ci bureau gouverneur ci la dàqe mboolem noonu yi bi nga xamee loolu am na mu signé la muy signé ñu libéré sëriñ sa kenn ku lañ jox la paquet warga téeméer dërëm ak suukar bañ lislaam bañ li tubaab bi bañu ko xam nga luy bañ ku dajale mbooloo hmm. ni kenn ku dem nag neel ci la nga bi kenn dajale mbooloo hmm. sëñ Bamba 1902 la ñibbisi dekkalaat gàmmo te gàmmo na fukkat ak ñett doog dem ci géej gi hmm. waaye ba mu demee ba ni mu dellu sottee kenn ñi mu la dajale mbooloo ci dem waxuma laa gàmmo sëriñ bi dal di jóge ci góor gouverneur foofu nag Eh, sëñ malik Taye mooy nettali ki ma wax ni sëñ Malick Taye moo ko nettali nit sëñ Samba yi laa ko dégg ndax histoire. xam nga loolu lañ koy bëggee. da nga da nga ne sànq sëñ Tuubaa kii tubaab bi bëggul woon ko dajale mbooloo. waaye ku mu neex jullil wala nga nekk sa li nga nekk. waaw ah, sëñ Tuubaa xanaa kon dafa ne taxaw ni day day day dajale. sëñ bi daa mën mbooloo sëñ Tuubaa dafa ci bi fa mel ni Tuubaa. Mm-hmm. daaru daaru mi fàq fekk si muy digle ñuy def la muy bëgg te lu mu tere kenn du ko ñemee jigéen te tubaab bi loolu dafa tubaab bi daa fiir mm-hmm. seen tubaab bi li bi tubaab bi àddina la bëgg ta taman yàlla la bëgg waaye yàlla yebal àddina ci man tubaab bi fiire ma mbooloo mi te mbooloo mooy àdduna mm-hmm. waaye mbooloo mi taxu mm-hmm. moo jóg yàlla moo taxan jóg waaye nag léegi bi mu jëmee ci yàlla yàllaa yebal mbooloo mi ci man te tubaab bi ko tee nelaw moo jotale ak moom léegi bi loolu amee nag sëriñ bi eh, bi mu xamee toll na foofu daal di wax nag nii foofu ci bureau sëñ Malick Taye nee na serigne bi dañ ko dalé ci yobu ci benn bureau beneen place ndar wo serigne gànnaar wo serigne sëriñu sénégal yi ndax tuba ba nga koy bëgg a te bëgg na xam ki mu yóbbu moy kan ndax tuba mom sa dañu ñaw dal laaj nak serigne gànnaar ni leen liñ leen di laaj ku ci wax deug dess ko libéré ku ci waxul deug bu ñu ko sété dess ko ray yéen mo wut wër kan mo raw hmm ko xam-xam ben nar jógi sëñ baa maa na raw ñu ko de da nga naan mo ma raw lu waxaale say morom daal di waat posé question bi naan bi jógoon jógaat ni sëñ bàmbaana raw ñu koy bëgg arrêté muy leen xaaral ma leeral ko gànnaar ña fa dàq jàng ñetti giir lañu bandi day man ca la bokk man ca laa bokk gànnaar ga may jóge ña fa des ñëwuñu ñëpp maa leen raw te ñi ma àndal maa leen raw tomal sëñ <laughs> dax sama wax na dëgg ñu libéré leen <laughs> woo sëriñu Sénégal yi ñuy leen sëñ bàmbaan raw ñu jël nag sëriñu Sénégal yi ak sëriñ jëlee gànnaar boole leen ci benn béréb dem jëli cheikh al Khadim ci benn bureau bi sëñ Bamba dugg see kalaam ni alaykum rek sëriñ sëpp complexe laal di sëgg tubaab bi xoolee ni wax ngeen dëgg sëñ Bamba leen raw ndax bi mu dugg see yéen ñëpp kenn ni mu woon sigg xol ko kon du seen morom kon mën ngeen dem ki leen soxla woon li waral sëñ Bamba ñu sepp ko te fekk ne yàllaa ko jëkk seppi min al waral baaxil xadim waaye allamahum bi annani abdul xadim sëñ Bamba ne bu yàlla dajale góor yàlla yi bëf ma ci seen biir yàllaa ma roccee ci gaa yi ber ma xamal gaa yi ne leen kële mooy abdul xadim mooy xadim rasul نصهني من الورى الباقي الخديم ويألمهم بأنني عبد الخديم kooku mooy Cheikhul Khadim nga xam ni yàlla suñu borom moo ko mas a ber moo tax dama ne photo yi ñu koy photo sax bii rek nii rek a baax wala seen baa keneen wóorul ndax lépp nii la ko yàlla def maanaam kenn képp la Serigne Touba wala su ko boole keneen photo sax ndax yàllaa ko yàllaa ko ber moo ko wax moo ne yàllaa ma rocca ca gaayee ber ma na sahani minal waral baaxil xadim yàllaa ma rocca ca tànneef ya waaye allamahum nag yàlla xamal leen ni bi ànd ni abdul xadim allahu akbar jërëjëf ban donc kon euh, sepp nañ ko si mbooloo mi sëñ xadim ndaxte gis nañ ni kim mu doon seet kii la te euh, ci ci juróom ñett fukk ak ñett ak ñett si ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekkoon ñi si des banaan leen si la kon euh, jël sëriñ bi ànd ak moom ñëw ndakaaru diggante ndar ba ndakaaru suñ xaarit lu muy lu am solo suñ donga leeral lu am solo mhm. xam nga sëñ Tuubaa mbirum mu nekk dafa xaw a yàlla moom dafa programme rek la amoon mhm. diggante ak suñu borom fi ne boo xoolee seere boobu ko buusin di seer ak ak yi ci xew yépp mhm. du sax buusin da koo xamoon li sëñ dongo wax rek nit moom dëggu dafa baax ci nit mhm. yont bi nee na ku la man ci ceddo bu tuubee moo lay man ci lislaam te gis nga te fi li gën a yéem mooy histoire boobu suñ dongoy wax ginnaaw géej gi la ndax loolu mooy saboobu gànnaar bi mhm. xam nga kon suñ tubaa nag jekk moom noonu yi dañ ko bàyyi woon xel gis nga nag foofu gis nga euh, maanaam moom bi mu nekkee na xam na fa maanaam ñaar fukki fan ak ñeent ñu door ko atté parce que waaw parce que le 10 le 12 août la fa ñëw hmm. ba le 5 septembre soo ko xoolee ñaar fukk fan ak ñeent la ñu door a atte sëñ Tuubaa hmm. atte bi 9 heures la tàmbali ba 11h ñaari waxtu la. ñaar fukki fan ak ñett yooyu si boppam la nekkoon. wala si loxol tubaab waaw tubaab bi dañ ko bàyyi woon rek. Mm. mu nekk waaw bàyyiwuñ ko mu dem fenn. maanaam nangu la xam ñoom lii xam nga li ñu. li xam li tey li ñuy wax contrôle judiciaire maanaam. waaw bàyyi ko te di ko may. di ko may waaw xam nga li ñu xam. Mhm. mooy sëriñ bi bi mu nekkee ndar mag ñi dañ ko daan siyaar si ndar. Mhm. Mhm. mag ñi danaan jóge ci fa fan jógee ñëw di siyaar Sëñ Tuubaa di ko indil addiye am na jamono yoom sax fi mu newoon moo yoroon dépasse bi mm. boobu daa fa mujjoon téye maam Cheikh Anta mu toog ci moom nga xam ne moom laan jox moo daan joxe dépasse ak yépp mm-hmm. loolu lañ xamul Sëñ Tuubaa am na fa weer ak nangam yàgg mm-hmm. na fa waaw léegi bi nga xamante ne nag loolu am na léegi comme ni sëñ dongo xam nga da ngay gis ñu ni eh, numéro 4 mm-hmm. am na ñu ni li mu nekk ñaar juróom-ñett fukki sëriñ ak ñeent mu ñeenteel leen déedéet loolu du loolu sëriñ bi biñ ko àttee ba noppi ba jël ba ni moom léegi liñ ko doon tuumal lépp am na léegi nag seen pexe mooy ñu faat ko moo tax boo demee ci eh, foofu lañ koy boole gaynde gi ca ndar waaw ah, waaw ci ndar la gaynde gi ndar la léegi gay naka eh, boobu dafa benn benn labbe bu fa woon dafa ñaanoon tubaab yi ñu may ko suuf soo xam ne moom da doon seet yenn xeeti mbay yi nga xam ne ñoom la suuf si nangu mhm. suuf ñu may ko nag suuf su xaw a yaatu tuuti mu dagg ci lenn def ko dafa yar ay ay ay ay mala mu yaroon fa nag ay gaynde yenn yi mu cay def mbay léegi nag ñoom bi nga xamante ne at nañ sëñ ba ni léegi moom liñ ko waxal moom am na ko léegi moom nan nan nan ko kii seen xel leen lañ njëkk ndigal lañ njëkk am ci moom mooy na na nan ko faat mhm. léegi nag labbe boobee lan wax mu indi leen gayde gis nga gaynde googee bi nga xamante ni maanaam Serigne Touba mooy suñ dongo wax si ñeloonoon kam mu bañ mhm. bind la mu bind ku xulaax lu kenn mus taxam mhm. tubaa bi dañ ni kii mooy ñeenteel ci ñi bañ ñeenteel si ñu bañ loolu moo indi numéro 4 xam nga lu tax <laughs> dafa am ñett ñu ko jiitu ñu bañ li Serigne tubaa bañ waaye danoo faatu mhm. dañ leen faat danaa wax seen seen tur nga bind ko sëñ <laughs> uh-huh. Modou Amina Diop kooku maam la Cheikh Ahmed Bachir Mbacké mm. hmm? uh-huh. sëñ Maga Algaaf Bara Xaali Cissé sëñ Maga Algaaf mag algaas waaw baraa xaalis xanaa kooku du sénégalais ah, mhm. ci la bokk mhm. ak ku ni wax eh, sëñ làmbañ siise mhm. ñeent ñeenti ñi bi tubaab yi waxee li ñu wax ñoom danoo bañ ñu yóbbu leen ca kaaf googee kaaf ak gaynde yooyee gaynde googee gaynde gi fàttali leen ñoom ñetti ñëpp bi sëñ bi ñëwee nag bañ la moo tax tubaab yi nit kii mooy ñeentee la ci ñi bañ ndax am na ñett ñu ko jiitu subhanallah ca jël nag décoration bind numéro 4. numéro ba muy quatrième. subhanallah ca leen nag li kon nag nan ko jaarale fan jaarale moromam. Mm-hmm. loolu moo tax ñu boole tàggay dege foofu. bi nu jëlee sëñ bi nag ba jël ko yóbbu ko jardin gouverneur bi xam nga foofu ko wala gaynde mm-hmm. bi nu ubbee bunt ba sëñ bi dugg ci biir ñu delloo bunt bi ndax moom du yàgg daanaka dan lay kii rek. Ah, gaynde gi def li muy dem léegi nag sëñ bi moom ne ci la mu nekk. gis nga foofu ma lay wax nii fi sëñ Tuubaa toogee. gaynde gi ci boppam wuti ko waaye sëriñ bi nee na yàlla dafa roof ci xol bi ngëm moo tax bu gaynde gi ñëwee dafa daal di yegg suuf daal di boofu ci wetu wetu sëñ tubaa sëñ tubaa bi mu toogee ab diir ca la gaa yi ñëw di xool bu mu ubbee bunt bi gaynde gi jóg sëñ tubaa xam nga ku gaawoon dox la mm-hmm. daal di waaxu tey ci càqum gaynde gi indi ko ca la bi noonu fustu bi ax si samanin laa taksidu silaatuha waliye laanal asadu mm. bin ma booleeg gaynde gi ci laa jàpp njugub ci laa ci laa tukki bi te demaguma ci géej gi gaynde gi nag gars yi moomutuñ ko wala liyee laa maay borom gaynde gi léegi léegi nag loolu mooy lan ko fa def hmm. yàlla dogal loolu antuwul sabab boobu nag moo tax gouverneur France ñoom bañ ñëwee gis ko gaynde gi nu jeex fa la yem léegi am na xese buñ ci nett sax ñu ne <laughs> bi gars yi ñëwee gaynde gi jóg ñu daw sëñ bi daw ci xam dañu wax na kan moy tak bu na mom du wax tej mu na koy tak buntu bi deng waye waaye biñ ko bi lolu amé nak la biñ do amé lay nak comme def nañ ko lolu la la mu nefi ñu ni comme nak nan ñu am digal gouverneur ndar bi am digal ñu andi ko ci gouverneur bi néwon Dakar waaw te ndigal liñ ko jox moy ñu fat señ bi sabab bobu nak, lolu motax señ touba jogé nak ndar ci alxames jojé Hmm? Eh, te wooroon ñu indi ko ndakaaru gii hmm. kon ndar dañ ko faa atte hmm. ban ko fa attee ni moom lan ko doon tuumaal moo ko def ba ca topp ñu ni kon nan ko faat ñu sottuwul ñu ni kon nan ko transféré jële ko fi yóbbu ko nag ndakaaru su ko defee bàyyi ko gouverneur boobu mu fàkk ko loolu moo taxoon jiitu muy ñëw fekk na ñu ñu waajal kaso boobu ba noppi xam nga li li nit ñi dul xam mooy sëñ Tuubaa danoo war a bàyyi danoo war a bàyyi xel li fépp fu jox ndigal sëñ tubaa ñu yóbbu ko fa rek. Mhm. kilifa ga fa nekk jox nañ ko ndigal bu ñëwee mu fàtt ko. subhanallah moo tax tukkeem moo xoolee boo xoolee mboolem barab yi mu jaar ñu teg ko fay tiis sëñ tubaa bi na ko ba mu des barab yi mu jaar am fa lu neex. Mhm. gis nga euh, jeewal gis nga li sëñ dong nettali. Mhm. ayee sa mini laa indi jeewali iblis naa bi laa waa fee jaar na kokki tudd ko ci xas dëgg. jaar na Louga tudd ko ci xas dëgg. waaye ba mu ñëwee ndar rek. gis nga dafa tuddaan ndar moo tax fu mu mës a jaar ñu ñu defar ko fa teraanga ak yooyu rek sëñ Tuubaa ko tudd moom fa coow la mette ak nattu yenn mette rek foofu lay tudd maam ndaru gi bañ ko fay jëlee jël def ndakaaru si ba si mhm, saxaar lañ ko dugal saxaar lañ ko dugal sëñ bi dafa yendoo koor dafa wooroon alxames la tombé waaw dafa wooroon loolu nag buñ ko xoolee mooy le 19 mhm. hmm? le 19 euh, muy muy alxames mhm. ba sëddi le di àjjuma le 21 mu dem ci tukki bi julli ci géej gi. léegi nag alxames eh, ah, kii maanaam bis boobee sëñ Tuubaa dafa yendoo koor. Mhm. bi mu ñëwee ba si moom sax bind na ko nee bi mu demee ba nga xam ne digganteem ak dog bareetul ne dafa jékki rek mu am ku ñëw koo xam ni dafa eh, yor ay ngànnaay ak comme xam naa militaire si jublu. Mhm. yor yoo xam ne yu doy waar la ñëw ne kaay wuyu. Mhm. ndekete mu ngi koy dugale ci kasa boobee. sëñ Tuba daal di daal di daal di daal di daal di jël aw yoonam topp leen mooy kan kan jël jóob bi mm. foofu la kaso ba nekk ah kan jël jóob waaw boo demee kaso baa nga fa foofu la foofu la ñu sëñ Tuba bokkul ak kaso bi ñuy wax ne dafa am rab yu ko doon kii boobu yooyu ah, fa la kaso fa lañ ko yóbbu woon bi mu fa ñëwee nag léegi nag ci lañ ko dugal ci kaso bi nag mu fanaan fa guddik àjjuma joojee hmm. mooy yooyu fa xew yépp te soxna jaar ñëw fa ak yonent bi naka sëñ Moussa ko binde hmm. ah, waaw seetal li bay ndongo lu yéeme kon kon kon eh, suñu borom musal na ko si ko waa ndar gouverneur bu ndawal. Hmm. ñu indi ndawal ndar tubaab bi nekk ndar ñu indi ko fii si ndakaaru waaye lépp rek même objectif bi maanaam bëgg a eh, jël ba kanam ah, nan la nekkee woon ndakaaru isa sakkatu salikal mabita xam nga moom la sëñ Xaadim wax na ko sëriñ bi fu mu jaar bu tàngee da koy nettali ndax histoire Eh, yon yàlla moom so gisee ñu naan addis bi wér ak wérul bi da bindu ndax mënu mën a bind am nañu ko waxal nak te fekk waxuko waye mom moom xam du jiyoog alquran dama yente ko andil xawaa ñu léegi ñu nak bi waxuko bu wér bu wér moy bu ànd ak alquran rek non lañ ko mëna xamé ndax salaa sallam bindu señ Tuubaa nag na lolu dundu ko xam ko tax nak mom fu mu jaar xam na sa ko netali mu xam ni bindal ko boppam day gëna a ñu koy wax sa mu wax ca motax mo ni sa bo xamé ni fatlikuna ñaari guddi ndakaaru ak nañ ma fa def ak la ma fa daj damay bëgg jiat ba yent yalla mom naan ëpp def bu waxal ak xaj ba wax bul wax ak xaj bi waxal ak borom xaj bi man rasulullah mi ngay liggéeyal am 700 bay bàyyi xare uhud dañ ko daaneel xar dana ba génn di ko yëy di ko buus julit inde ko defan te bañ ne alkuna nabi dana déedéet deret sa bay ku mu dugg dën dem safara mm. kooku daa mujj tub ci l'islam mun ko nag man mi ngay sa bay def nañ ko non ci xare uhud kon nag moom Momadou Mbacke bu la ak xaj bi wax la ak borom xaj bi. Hmm. nasaraan bi xaj la waaye yàllaay boromam. moo waral ko xons bi bi naas yi. da ngay muus ci borom nit ñi. yàlla lu waaj soxal soxal yàllaay boromam. te hmm. yàlla ko bind tam nag. wallaahi bi nag bu la waxee bi waxal ak borom xaj bi. Hmm. ci la jéggalee guddi wax nañu ni Seydina Jibril moo ñëw tijji tijji kaso bi. ñaari guddi Ndakaaru metti na. ni koor la indaale ñëw ba ci war a dog ñëw bu war a dog ñu nangu kaala gi ñëw ci buntu kaso bi ba ma ko ci kaso bi tëj ko fanaan fa ñaari guddi mu jàng faatiha baqara ali imran bëgg rukkoo munta sujjóot ndax béréb bi ni mu xate Seydina moom ne cëpp ci biir ko bu la ko xaj bi waxal ak borom xaj bi Seydina Jibril tijji néeg bi soxna jaara fekk na ko foofee mu ne moo tax mu ne soxna jaara mën na ko ne nay sëriñ bi génn foofu nag suñu xaar wax la ko léegi song yéen géej nee naa la le 5 septembre septembre 1895 moo doon ndar 21 bi nag mooy julli géej gi ñuy màggal fi ci ndakaaru ci la julli ci géej gi diggante ndakaaru ak mbuur waaw ñu ni tisbaar la ndax xam nga sëriñ bi wax nañ bi ñu ko ne man dem naa ba Gorée fi ñu ko dugalan boo fay dugg bëccëg làmp nga yor sëñ Tuubaa fi ñu ko dugalan ci Gorée boo fay dugg bëccëg guddi bëccëg làmp nga yor dafa leen a këris waaye xeer woowu fi ñu ko dugalan ci suuf noonu ba léegi ndox ngi wàcc ci xeer di sotti ko foofu dem naa ba dugg foofu ba sangu fa 1981 ànd ba Badara Ñang ak ñaam Malick Tine sama wëlër yooyu ñu dem foofu dégg nga maanaam boo fay dem bëccëg li muy làmp ngay yor ñu jële fa sëñ bi indi ko ci gaal gi teer mu war a dem maanaam seex yeeg waa Ndakaaru ñu fi nekk jullit ak ñëpp am ñeewante ku ma sa ñëw foofu nag danaa ñaanal leen ma sëñ Bamba tàllee sa loxo ma ñaanal leen nee ñu benn kilifa laa benn yi tey leen ci moom kii dina dellu si ku ma sa ñëw fi danaa ñaanal leen ma moom bi mu ñëw dana tàllee sa loxo ma ñaanal leen na ngeen tey ci kii bu demee dana dellu si ci la jël tànkam te ci gaal gi ne allamani rahmaanu fi safina bi ànd na xaddima sil madina yàlla xamal na ma ci gaal gi ni damay liggéeyal borom Medina waaye maa ngi dem waaye damay dellu si sëñ Tuubaa ne fu ma jëm dama fay liggéeyal njool màkka waaye damay dellu si bind na lettre yoo xam ne sëñ Mamar Jaar la ko bind ne ko maa ngi fii liggéey rasulullah bu liggéey bi jeexee dinaa dellu si na nga yërëm say rak wax waxtu rafet ca lettre ba bind na lettre Cheikh Anta ne ko lors bi nga ma yónnee suukar si gis naa ko yëpp maa ngi lettre yi Cheikh Blaat Mbacké ko dajale ñoo ngi lay ñaanal saadu daari nii ni maam Thierno yow nag wan siri naasa na nga waar doomu aadama delloo leen ci yàlla waaye gone yaa ngi noonu bu jàppandee ak jigéen ñi na nga nekk ak ñoom tubaab bu jàpp ndiwul nanga nekk soo sa borom man dinaa ñibbisi kon ñibbiseem wóoroon na ko moo tax mu ne yàlla icca rujoo yi ilaa xaw mi sahaadata naa wala tag fi naa yooma jafel xalxi niiraana sama dellu Sénégal ci sama nit ña na nekk seenu texe mm. kon daa bëgg a wax ni bu ma dul bu ñu dul texe buñ dul texe bu ma dem dégg nga boo déggee wàññaan gi rek defal sama dellu sama nit ña mu nekk seenu texe bi maanaam bu mu bu ñu nangu bu ñu nangu la texe bu ma dellu waaw kon bu dellu sie war nanoo gëm ni kon dinañ texe icca rujuhi ila xaw mii mhm. sahadata naa mhm. te wal tag fi naa yow yaa ma jamal xel xi nii raana boo dajal nit gi rek malayka jël siraat gàcce ko ci jahanama na nga leen fegal mbugalum safara mhm. sëñ ma mun na koo fay gis nga loolu Alioune Badara ba mu demee ci géej gi fu mu jaar bind na ko Conakry rek dem naa man Conakry ànd ak Mouhamed Seck mu yóbbu ma port fa sëñ tubaa wàccan nga xam ne foofee ku am soxla aajo guddi fa nga koy ñaane ji ci biir port ba mu jóge Conakry ak fu mu jaar yëpp sëriñ bi nag dem ci géej gi mhm. xam nga soxla sëñ koy nettali suñu xaadim wax na ko léegi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa gàddaay mhm. te gàddaay gi bu ñu ko bindul woon di ko waxtaane ba léegi ko fàtte mhm. yàlla te gën a yéeme ndax genn guddi nga bàyyi ko jaar maqdis bët asamaani juróom-ñaar dem aras ñibbise te fajar jotul te mbindee fa ko def te amuli laaf ku ñu ko leeralul mbaa ngëmoo doo sa mën a jëriñ mbirum sëñ Bamba ngoog mm-hmm. dafa noonu sama lépp day maggal lépp Seydina Muhammad yu bajjulu kulli kulla kalee boo wax ka sama lépp day màggal lépp Seydina Muhammad mm-hmm. tey ba ëllëg ba yéen sa arab bii la ora dahaar sa wani mm-hmm. kooku nag moo tax li mu wax ni sama lépp dund ba yemal moo waral fu mu mas a jaar day dund ba yemal kenn du ko fàtte yaqini ilahi wa kulliyati yuhi bi jaay rasulillahi man naa ju uhi sama léppay dund sama dara du dee ndax su sunu si yoon ñool màkk ba mu nar a dee maa ko dekkal man xaadim rasul mm-hmm. te yàlla ko ma a fay bor la mm-hmm. moo tax munta ñàkk ba yowmal xiyaam ñuy mm-hmm. waxtaane sëriñ Tuubaa moo tax damay faral di wax ni Aliou Badara uh-huh. eh, bëgg sëñ Bàmba nga a sëriñ bi ko noonu li ma ci metti mooy di nga dem ba faatu ñu jaar sa kaw bàmmeel di waxtaane sëñ ma sa ginnaaw looloo tax bañ ko moom da fitna la mm-hmm. yëmul sax mbugal bi la yàlla teg waaye mm-hmm. maanaam yow bi ngay dund ci àdduna maanaam doo bégg sëriñ bi mm-hmm. ba faatu nekk suuf lu yàgg ñu waxtaani sëñ Bamba sa ginnaaw kon bëgg daa gën a noppale moo wax ni àllamu man asadani laayan sarim wa bisru man yuhibu nii laayan xarim sëñ Bamba ne ni ma yàlla melal ku ko ñaanal ba mett sa xol doo tàggoog mettitu xol waaye ñu may bëgg nañu tàggoog mbégte bëgg nag mu yokk neex na ci ki bëgg waaye mett na ci ki bañ de te sëñ Bàmba lépp may yokk ba yomal xiyaam usti bi kaw nil Moustapha xayri rusul tariqatan naasixatan kullu subul làq naat doole njël naaka mi nga xam ni li yàlla bind ma sa yoon moo ci gën sama yoon wii dana folli ñàll yëpp lii mooy waxe xaadimal Moustapha loolu lay waxe macha allah bu waxee ko kon lépp rek si yoon wi nga xamante ni ndeysaan mooy yoonu ko géej gi waaye xam na ni mu ngi dem waaye mu ngi dellu si ni ko bàyyi ndongo waxee waaye sëñ Xaadim xam ngeen ni kon si Ndakaaru fii mel na ni bokk na si euh, maanaam moo barab bi nga xamante ni bokk na si barab yi gën a tar si taaxir si si si lu mu jànkonteel dem na bu bind ko su ma xalaatee li ni mel ni ko bàyyi ndongo waxee isa zakartu zalikal mabita wa zalikal amira wa sabuta ba mu jeex ni mu ko waxee noonu nga xam ne kon ndakaaru daj na fi mbir waaye mel na ni kon ñetti barab lañ la la ko la ko la ko tubaab yi mu joon denc ci ndakaaru muy fii kanjal Diop si euh, Gorée ak euh, fi nga xamante ne mooy si wetu port bi fi nga xamante ne nañ fa la dëj yi nekk xaw ma euh, rab bi mu doon lu doy waar waaye fa la jógee daal di dem nag kon si tukki bi jaar na Bra euh, Brazzaville jaar na Libreville jaar na Lambaréné ba dem Mayomba wiir wiir duñ ko fàtte ba si Conakry bi ni mu ko waxee Grand basam ba si fële muy Karambassa bi nu mu ko waxee si Côte d'Ivoire jaar jaar yooyu yëpp sëñ xaalis. waaw xam nga xam nga xam naa ni bëggoon naa ni julli géej gi. waaw xam nga xam nga xam nga sëñ Bada. Mhm. pour ñu leeral mbokk yi ni déglu. Mhm. xam ni jubluwuñu waxtaanee histoire géej gépp loolu kenn mënu ko waxtaan ci benn jotaay <laughs> dañ ciy jukki ah, moo tax moo tax fu ñu tënk rek fu ñu fu ñu romb rek ah, julli géej gi eh, jukki fa dem mm. buñ jàpp dañ fa am nun fa bàyyi déedéet dañ ko mënta waxtaane ba ci benn jotaay moo tax mm. gis nga kon ma sëñ donga boo xoolee mm. ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, waa Ndar yi màggal eh, maanaam julli bureau gouverneur bureau ba mm-hmm. ak ñi màggal guddi Ndakaar yi fii mm-hmm. ak ñi màggal julli géej gi xam nga nit ñi war nañoo xam lu jar a màggal ñetti kuréel la Mhm. ñetti kuréel yi kenn ku ne la ngay def lu jar a def la mhm. ndax ndax ndax ka fa jaar ak la mu def mhm. euh, defewu ko ak neen tey ci ndigal la nekkoon ba loola am waaye moom la tax loola am sax moo leen ko def loo ndax sëñ Tuubaa fii ne ni am na yoo xam buñ ko bindul woon de fii ne li mu bind nii am na ñoom bu ñu ko jàng mm-hmm. waaye la la mu def buñ ko jëfee di ko màggal ñu xam ni kon def feeñ feeñ mm-hmm. kon ñoom ñoom ñu jara màggal la ñu ñu jara sargal la moom dëgg la ñoom ñuy màggal bis yooyu mooy kuréelu ñetti fan yi guddi yi mm-hmm. ak kuréel julli géej gi waaw ak waa ndar waa ndar dëgg la léegi xam nga bi mu damay bàyyi dinaa bàyyi sëñ dong mu ñëw ci eh, julli géej gi waaye damay ñëw man ci diggante Conakry mhm. ak Grand Bassam bi nga doon wax mhm. <laughs> xam nga bi mu ñëwee gaal gi bi mu ñëwee doo euh, Conakry la jëkk a wàcc mhm. ginnaaw bi mu jëlee ci géej gi ba bi bato ba ci port bi foofu la ko Ndouroume fekk Ndouroume Mbaye men euh, men la jëkk gisante ak sëñ Touba ci Conakry mi ko doon mi ko doon euh, waaw waaw men waaw waaw ko doon doxu sàngara bi mu gisanteeg moom foofu xotti yére léegi ca la xam nag ni moom mii moom moom mooy mooy Ahmadou Mbacké daal di ko ne yow sama foofu laa ne la fa la ko doon wax ne ko sama mbokk ma nga bàyyi fële mooy maam Abdoulaye ma doon wax mhm. moom moo la jaaxase tubaab bi waaye boo ñëwee man mi nga fi fekk léegi nag tàmbale di wax noonu waaye sëñ bi nee na ci bi muy wax rek gaal gi dafa jékki-jékki rek mel lu sofe machine bi riir noonu riir woo xam ne kenn dégg kuy wax kenn du la dégg mhm. ne loolu moo tax mu mujj noppi ba yàlla doga nag ba bato bi départ ba ñëw garam euh, garam basan boobu mhm. ca la dudum bay wàcc ni ko nag maa ngi dem waaye dina dina daje dajawaat foofu la suñu tubaa ne asaba anillah fi garam basa xablu mu baarisi mu baarisi yooyu duduma mbay si jublu daa tudul tur wa xablu mu baarisi waa an ne xal basaa mu ni bi ma ñëwee garam basa ci la yàlla demal sama noonu boobee ka doon léewaat ak man mooy bu baari fii waaye nag mu ni xal basaa ba far na dem léegi nag foofu la tàggu taxalu koog moom waaye fa ñuy dajawaate ci kanam lay doon léegi nag diggante nag Eh, bi mu gaal gi bi mu jógee fii ba ni mu demee Conakry diggante boobu comme ni ko sëñ Ndongo waxee ci la jullee ci géej gi waaye damay bàyyi sëñ Ndongo mu leer a julli géej gi ñu door dem nag Brazzaville <laughs> eh, waaw xalaama xam nga allahuma xadaayu xadaayika alxawli fi bahari kama xalilaka fi naar booba wéer wéer la man xam na balaa nga wax julli géej gi man xam nga seen tuwaay yàgg na si si si tukki bi si biir géej gi eh. waxtu yu bari dox na fa lu tax benn yoon boobu rek lañ jàpp ne seen tubaab si la julli si si géej waaw maanaam xam nga boobu la ne ci ndox mi nag xam nga bi ko bi ñu koy jëlee di ko yóbbu boobu la ko waxtu fekk ci ndox mi diggante Sénégal ak euh, Conakry am ñu ne bi mu tolloo mbuur la waaw mbuur sax ñu ngi koy màggal ñoom itam léegi mm-hmm, mm-hmm. te jàpp nañ bi mu tolloo mbuur ci la waxtu yi jot waaye xam nga sëñ Tuubaa na ni foro bu maa yesir fooxal maa yi am ci avant film mm-hmm. sëñ Bamba mii biir masal ki dinaan wuteegul te daan na yàlla yi am na ñuy dox ci kawam ndox na ñuy wax ak garab am na ñuy waxee ki xeer mu bind loolu tamit wóoteegul yoonu murit kon wane nañ loolu mun naa am avant mu koy def moom. Mm-hmm. dégg nga wax ja bu baax a baax mm-hmm. kon bu nee am na wàll dox ci kawam ndox am ñuy waxee ki am ñuy waxee ki xeer di ko bind te moom mi ko wax wóoteegul mm-hmm. mi nga lay saxalal lu mu bëgg a def te defagu ko. ah te gars yàlla yi wax ne mën nañu loolu sëñ Bambaye seen kilifa dinaa ko leeral mbindam la laqat sabaxtu giñ naa ne man ci kanam góor yàlla yi te fa laa yaxfaa ala ahadin umpul kenn si ñoom daa mun ilaa ahad la ilaa ala ahadin ak saw mawlaw xanaan koo xam ne saa borom texeel texee dil na ko rek mooy werante raw gi ma raw gaa kon sëriñ bi firndeel na ni dox ci kawam ndox am wali ko fi yàlla tàggatale ndox mel ni suuf sëñ baam bokk ca ñooñu te moom noonu na kiraamati xattu yedd man sama kiraama mooy li ma bind ci xalima sama xalima rek. lu sabab mu wàcc waaw sëñ Moustapha Lo mi jarbaatam di boroom xam-xam wax na ni sëriñ bi bi muy sëtam ma damaa jub jaatal ma damaa jub sëtam sëñ Moussa Lo ne sëñ Bamba bi mu wàcc ndox mi def kiraama taxu ko wàcc ci ndox mi déedéet dañuy waxtu yàlla faat ko bakkanam jëralu ko maanaam waxtu yàlla jot bañ ko julli bakkanam jëralu ko doomam doon na ko ci de sëñ Mourtala Mbacke Bassirou Diagne yàlla ko yàlla yokk leer mm-hmm. nee na ma bi muy dem màkk mën na yónni ci moom waaye dama ko waxee dafa toog di xalaat ba ak mu ni bu fekkee wenn waxtu julli dina fekk ci avion bi de man Mourtala Mbacke doo dem Makka ndax dem Makka jëruma fàtte waxtu yàlla ba Sëriñ Jaan nee na ma dañu di programme avion boo xam ni ginnaaw julli geelee décollé avant fajar mu yegg Jidda noonu la demee ni la ñëwee sëñ Mourtala doomu sëñ kon su waajuram waxee ni sama bakkan jaar doon fa jar lu ma fàtte yàlla war naa mën a nekk sëñ Saloone bi sëñ bi dem di julli si géej gi bu mu jëlee der bi ndax nee na jàpp na madame bi laal ko Moussa ki bind loolu mm-hmm. mu dellu jàppaat mu laal ko sañ bi jàppaat jël jël ba der bi di waaxante ci di waaxu ci kal bi di baax ñu ko maanaam bu daa bëgg a xaru te foofu nag ndox mi moo fekk si bato bi ndox mi jóg ba toll ki mu jóg bato bi sëñ taw bi ci géej gi waddul daa jël tànkam jog mi mel ni koy dox ci suuf sànni der bi kàbbar am ñu ne nag gaal gee ànd ak ndox der bi daw am ñu ne gaal gaa taw der bi taxaw mm. waaye loolu yàlla xam mm. waaye li wér mooy mu taxaw ci géej gi julli ba sëlmal dellu siwaat ci ab ci bato bi <laughs> ne tubaab bi posé ko ñetti question ne ko maa rabu mm. xam nañu am nga wilaaya xam nga ngor ak mbow fit fiti mooy fi nga wàcc ndox mi profondeur bi digganteem ak suuf mm-hmm. nangam mille kilomètres la mm-hmm. loolu fit la bi ngay julli gis nañu indaale woo suuf gaal gaal gémul suuf mm-hmm. boo tegee sa jë boo sigee suuf taq ci loolu wilaaya la waaye dellu bi nag mooy ngor boo fa tegeen ku loolu kenn du la dab si <laughs> sëñ bi da leen dem ci tax a jóg kon julli ki ci géej gi eh, bi ñu ko waxee Serigne Saliou Mbacke waa kuréel géej gi da leen ni maanaam eh, sëñ Abdou Khadir da ni sëñ bi day def na lu ne mhm. waaye boobu na moo gën a yéeme ci ni mu def kon fàttaliku ko di ko fàttaliku day du am solo moo tax kuréelu géej gi ñoom itam jóg mhm. di seet bis boo nga xam ne sëñ Bàmba def ko def mhm. muy jaamu yàlla ba sa boroom maanaam def def ndigalal sa boroom sa bakkan nga tay la ko ca sa bakkan mucc nga dellu siwaat amaat yàlla te soo ko ñàkk loolu mën naa fàttaliku ndax sëñ Tuubaa daf ni eh, fàttaliku waa ju baax dañuy wax ne dina wàcc ni yàlla ba mm. yéen zikri zaalina tansilu rahma sëñ Bamba nag lépp may dund ba yomal xiyam mm. boo demee Kajoor mm. da ngay dem si àll boo xam ni dañ faa tabax ñàkka sëñ Bamba dafaa julli woon rek kenn du ko julli waaye dafaa julli woon rek ndax moom wax nañu ni nee na foo mës a julli rek Moussa Ka ko wax bunt la ci asamaan fu waay ñaan mu nangu te xam nga ni njool Màkka bi muy ñaan benn porte am muy baytul maqdis la am mu bàyyi ko Màkka dem baytul maqdis dugg ci porte ba dem ci asamaan yi sëñ Ba mën na ne fu mu julli buntu la ci asamaan. ah kon de mu julli si géej gi buntu la ah, ci ci ci réew mi la. Ah. naan sant yàlla. <laughs> sant yàlla bu baax a baax sëñ Adama xam naa ni waxtu yi jël na waaye nag il faut ñu ñu ñu eggali leeral bi day am solo lool. Ah. bu ñu mën mënee jël sax fukki simili si si si si téléphone bi mën a leeral ndax tey kon julli na ba noppi waaye ni ko bàyyi ndongo waxee mu daal di delluwaat ndaxte ki taxaw ba julli si ndox kat su la neexoon mën ngaa awee noonu ah, xalaat daal di dem waaye dugg na bu ko defee ñu daal di wëy jaar yenn barab yi faram-fàcce ko waaye ëpp na si euh, nettali xanaa diggante maa yomb ak wiir wi waa xam nga xam nga sëñ sëñ sëñ badara sëñ ndongo sëñ bi dane nuqiimu xayra xam si di mhm. dikkri man ala an ramsi mhm. fu ma mën a nekk dinaa saxal julli juróom

nga léegi nag bi ñu kii comme mu ngi dem. Mhm. bi mu jaaree Conakry comme ni ma ko waxee ba si Grand Bassam léegi bu mu duggaatee gaal gi dafa continuer mhm. léegi nag ndigal li ñu jot moom ñoom mooy bi ñu jógee Dakar pour ñu yóbbu ko eh, maanaam Brazzaville. Mhm. xam nga lu waraloon lool. mooy gouverneur gouverneur bi nga xam ne moo fa nekkoon. gouverneur yi nekkoon ci Gabon Cameroun ak Afrique centrale ak Tchad ak Côte d'Ivoire moo leen yilifoon léegi nag ñu ne nag kon léegi nañ ko fa yóbbu buñ ko fa yóbboo léegi ñoom moom ñu jox ko ndigal mu def pexe ci moom waaye yàlla dogal xam nga foofu amul woon port Matadi la wàcc hmm. fa la port ba nee woon bi sañ bi wàccee portu Matadi doona wut gaar ak looco yëpp ci ay bagaasam yëpp ci sëñ bi am ñu ma àndal ñu joow jëma moom Brazzaville bi nu see xam nga foofu suñu toog an saani yem te daafa nat bin xatidi jumlata ma laa xaytuhu naxwa Matadi hmm. mu bi ma agsee ma tey coono yi ma doon daj yëpp tagg yi ma doon tagg yonent bi fàttaloo na ma ndax njariñ la ma ci jëlee fàttaloo na ma coono yi ma doon daj xam nga ni gaagaloo co koo xam ne musta xam liggéey nga dugal ci gaagaloo co xam nga mooy gaal yi ñuy jow ak yooyu mm-hmm. ak yeeg yooya xam nga loolu metti la bi ma agsee nag Brazzaville mm-hmm. léegi nag gouverneur bi fa nekkoon mm-hmm. moom ku yeewu woon la diir bi mu am ak sëñ bi seetlu ko te moom xam na jox na jot na rapport yi nga xam ne jaar na jaar na ma jaar ak moom léegi daal wax ni man kii moom du ko ma fii téye ndax gis naa ni ñi ma yor fii ñi ma yilif fii danoo yeewu te kii ni mu mel bu fi yàggee ñëpp dinañ ko topp ñaareel biit mooy duma ko yóbbu Soudan ndax réewum ko yóbbu it eh, ndax dafa jegante ak Nigeria te foofu réewum jullit waaw mu ni nag léegi eh, léegi daal mu xalaat xalaat yàgg mu ni kon léegi na nan ko toxal yóbbu ko Libreville sabab boobu moo tax ñu jëlee sëñ bi Brazzaville moom yàggu fa ah tey toxal nag yóbbu ko Libreville digal nag eh, kilifa ga ni ko nag su ñëwee rek defal pexe ci moom. moo tax Libreville googu eh, sëñ bi faran ko gasewoon pax nga doon wax. suul ko fa. fa lañ koy yeewoon ci garab ga fital ko. yooyu nag ñaar yooyu yëpp foofu la amee soo demee ci ni ñu koy leerale pax mi moom dana ko gas rek daf ko ngaari soo gisee ñun sëñ Tuubaa da nga ko dugal ci pour du caagi ne pour buñ tawax ba defar ko mm. waaye ngaari mënu ngaari la taal ci sawara ah. mu xóot lool ba mën a ku ci tàbbi da war a faatu lu mën a lakk mburu ne ma def na ko tudde pour mm. dégg ba mu nekk gël bi ñu def ci nag benn kii nii mm-hmm. eh, teg ci dara ci kawam mm-hmm. léegi nag woo sëñ bi nag ngir mu dem ca moom sax da koo leeral ba mu koy leeral sëñ daam da ko ni bi muy jëm ci barab bi sëñ bi dafa yeexal ay ay jéegoom ndax wala walaatul xoo bi bi bay di ko mi la tax lu koti sëñ Tuubaa du gis alkane da ko ñëw kon day day mel day wuju alxuraan alkane da ngay def pexe ba mucc ca wala nga ñàkk caa mucc léegi nag mais bi mu bi mu ñëwee ba jub ko nag nee na ca la yeexal ay jéegoom waaye bi mu wax sëñ daam da ko ne li ma sëñ am sa jaxate sëñ am si jaxate la ko wax waaw sëñ daam la nett julli gi waaye li sëñ am si jaxate la ko nettali ni ko eh, li tax ma gaaw caa tab bi mooy li ma dégg tubaab bi wax ko ndax nee bi mu ñëwee ba jub barab bi ni mu yeexaloon ay ay jéegoom tubaab bi da ko ne xanaa gëmoo sa yàlla ji ngay woote <laughs> moo tax gis nga murit day am jom si nga jom ji nekkoon sëñ Tuubaa murit bala ngay xam mooy kan ngeen ko gëmoo sëñ Tuubaa léegi léegi rek ñu ah. for la ci suuf mu loolu nag da koo doon dañ koo doon ne suñ Tuubaa mais bi bi ñu waxee ne bi muy fi tax dal ci barab bi yëgu ko sax nee na mu daal di dem rek yol nekk te yol na ñu daal koy suul suul ko ba mu daj ah, waaw nit ñi jeex na wax na sëñ am satu nee na ko pax moom ba ma fa tàbbee ah. képp ko ma tomb ci yàlla ku mu doon fekk nga ma fa waaye nag ka fa ka fa jëkk ñëw ci ñoom mooy seebdu xaadi jilaani noonu la ko wax sëñ am satu ne ko képp ko ma tomb ci yàlla ku mu doon fekk nga ma ci pax moomee waaye ka jiitu ci ñoom mooy seebdu xaadi jilaani te kenn ku ne boo ñëwee la ngay waxit ah. sa morom di wax rek maanaam damaa ñëw képp ku liggéey yàlla ba toll fii man di sama dimbal sëñ bi ni ko ndax sa borom moo la ko nga ne sama ndimbalaay mun la maa ngi nekk sa borom nee na ba nu jeex tàkk lépp mu ngi ci tiis bi ne doowuloo lu muy rek jekk-jekk am lu téye ñaari mbaggam ni ko yëkkati ko tekk ci benn barab ni ko wéyal sab liggéey sëriñ bi nee na bi mu gestoo loxoy soxna jaar la ci gis dégg nga léegi loolu jàll ñu ne nag kon comme sul nan ko sottiwul léegi nag nan ko fital mu jeex benn yoon ñu tàggu moom léegi nag lay lay mbir ma mooy li suñu bi su talaata boobee la ci gënoon a yéeme ñoom dañ ne woon 4 heures ci guddi lañ koy fital ndax bëggu noonu waa dëkk bi yëg ko mhm. ñoo bëggoon bàyyi ba aar yooyu rek avant 4 heures ñu yóbbu ko ci garab ga fital ko mu jeex benn yoon nga xam ne waa dëkk bi balaa ñuy yeewu danañ fekk lépp sotti duñ ci xam dara ñoom loolu na ko jàppe woon mhm. waaye yàlla ku mu àndal nga am nga am ko am mhm. léegi nag ñoom bi nga xamee ne yeew nañu sëñ bi taxawal ko ci garab gi. laxas ko ay buum laxas ko ay buum laxas ko ay buum ba te yëpp ñu wut fukk officier ak ñaar. Hmm. ak benn capitaine. officier bu nekk. Hmm? sore ñoom fi ñu taxaw sore na sëñ bi loolu ci fukki mètre. Hmm. lan daan de woon sëñ bi kenn ku ne ñu am lu la diirloo ci moom. Eh, eh, maanaam eh, capitaine bi moom digganteem ak sëñ bi comme mooy joxe ndigal tolloo na ci juróomi mètre. nga xam ni dañu woon su wàññee 10. ba eh, hmm. ni zéro rek ñu fital ko waaye duñu 1 2 3 ne dañuy dana 4 3 2 xam nga 4 ak 3 ak 2 boo ko 10 lay doon mu ni su nee 4 ñu téye fitali yi su nee 3 ñu diir su nee 2 ñu téye sant bi tak doxaar bu nee zéro ñu ñu tiré tiire ne bi mu 3 bi mu 4 3 2 ba ba bi na naa rek ba muy wax zéro rek ci la yalla dindi kiray gi malaaka yi ahlu badar leer gi feñu leen ñu daan fukk officier ak ñaar ñëpp daanu suuf ba mu def capitaine bi capitaine bi moom mu ngi taxaw di waxanteeg sëñ bi moom moo doon waxanteeg sëñ bi moo tax foofu sax da ko ne lii ñuy gis soo fexee ba gisatuñ ko dootuñu daf tegate benn nattu moo tax natt boobu moo mujj foofu ci moom léegi nag sëriñ bi ni ko lu koy dëggal mu signé ko dégg nga waaw mu signé ko léegi nag loolu moo tax léegi nag foofu la ñuy wahaba lil wahaabu fi salaasa maa yuxjilu la asrata wa salaasa bisub talaata boobu yàlla may na ma foofu lu gàcceel fukk ya ak ñett fukk ya ak ñett mooy fukk officier ak ñaar ak benn capitaine ba léegi nag bi loolu jàlle nag ci lan ci lan xam nag lii amatul kii ñu toxale sëñ bi foofu daal ko yóbbu nag lambar ne lambare na teel lambare na gi ñu dem si nodd gi daal rek lu jëm si waxtaan wi sëñ Xaadim yaa ngi tolloon fa am solo dina ko kon noonu la jógee kon Libreville waaw hmm? noonu la jógee Libreville si si lu doy waar yooyu tubaab yi doon def tubaab daal la doy waar. xam nga foofu sa laa doon bëgg a leer ni dafa am hmm. ñaari kii ci ne am na ñu wax ni. Hmm. Eh, Lambaréné gi Mayomb moo ko jiitu. Mayomb la dem am fa ñaari at door a ñëw Lambaréné am fa juróomi at door a ñibbisi. am ñu ne Lambaréné moo jiitu. jóg ba mu am fa juróomi at ba mu fa jógee dem waaye Lambaréné Sëñ Tuubaa da ko bind galuwaale yi bind. galwa mooy lambarle waaw waaw de loolu nañ ci ñëw ci ci ci leeral waaw insha insha allah waaye ah, donc loolu yëpp nag ba ñu noppee tubaab bi man daal tubaab doy na waar ndaxte ñoom taxul ñu découragé ñu ngi koy yóbbu si yeneen barab ba ci wiir wiir googu nga xamante ni dégg naa moom mbir yi mbir yi jinne sax dafa nekkoon xanaa wiir wiir googu fa la dajeeg sàmbalaw bi waaw xam nga dañuy wax ni sàmbalaw bi njaay ñoo ko sëriñ tuba mosuñu andi si géej gi bu dul wiir wiir hmm. ndax dañu ni moom fu nu tuba mas a toroxale sàmbalaw bi fekkee na te bu dee la da koy nettali waaye bu ñu demee wér-wér mu duñ dellu si moo tax ñu bool leen capitaine bi leen yóbbu fajar la jóg sëñ Moussa Ka nee na ba tisbaar la yegg bi mu yegg see sànni leen ci dun ba sëriñ bi daa tegub deram jël tisbaar def ay naafilaam sàmbala bay toog nee rek yaa ngi sëñ Tuubaa ne ko dajaleen ma yax yi ndax ay nit yàlla yi fi nekk ni jaamu seen borom la ba seen kàttan yem fii ñu faatu te kenn julliwu leen sëñ bi dun la boo xam ne rabee fa nekk ku fa jaar ñu lekk la moom sàmbala bi moom bi señ bi ñëw ne wax ko mu dajale yax señ bi jullé leen def ay jaamu yalla ndako ne dajaleel ma bagage dama wara a wat sàmbala bi moom jaaxle lu leen wara a ci ndax gisul lu leen wara indi wat ki nga xamni netal nettali na ma ko wax ni sàmbala bi njaay ko netal neena ma sàmbala ba ko ni waxe ndey señ tuwa yoy mu tegal bi sëñ Bamba bëggee ñibbisi waxe ndey señ dama joxañ rek day tolni ni boitu almet ci way bu la joxañe rek nga tuti xam nga señ dama ni muy yokkee ni lay wañé ni mëna wañé ni la mëna a nee na waxande wu mu joxoon rek mu toll ni paquet almet ba waxande yëpp day suñu tuwaay dajale ko ñu takk ko mu ni Samba war na sama ginaata te ma nimiku. Eh, Samba ni ko Mbàkke dama laa yërëm ba néegu ma la laal suñu tuwaay dafa tuuti woon Samba la bi làmb. mu ko Samba su la ko waxatee naa leen la fi ndigal moom fi ndigal moom fi moom fi jëlee. mun ñasal ci ginnaawam tey loxoom ba mu dëgër gëmm ndax daal jékki-jékki rek dégg ab bur wi. Mm-hmm. Samba bi ne xifeet rek gis te fa sa gabaŋ. ñu ne ma rab bi dellu si na. bi ñu ko jëlee yóbbu ko ci benn magasin téere bu ñu ayat sax mat bamba soo ko jàngee di fekk li may wax jël sëñ bamba yóbbu ci benn magasin tëj ko fa ñoo ak bi ak bagage ya capitaine bi la ñu yóbbu woon timis la ñëwaat ñoom ñoo ko fa jiitu si ñoo ko jiitu si waat galon ñu ne ko anam arab muy leen sànq naa ko dootu leen ko gis ñu ne ko xam nga ko muy leen maa ko yóbbu tey ci fajar ñu ne ko kaay bu ñu ubbee magasin bi capitaine bi jàkk sëñ bamba ak sàmbala bi ak bagage yi pistolet bi mu yor la seex fital boppam mu la seen bamba naan arada makaidal hida ila al hida pexe bi noonu bi jëmoon ci man dellu na ci moom ñu jëli benn labbe bu nekk Congo labbe bi ñëw ne sàmbale ba génn moo sëñ Bamba ci biir magasin bi ñu tëju labbe bi di ko sëñ Bamba di ko xool téere bi nee na une heure de ñu xoolante waxtu 60 minutes labbe bi génne kan moo fi indi ki ñun ko ñun mun leen delloo leen ko leer gi ci kaw bët na samaani juróom-ñaar xam nga fan la yem leer gi ci bët na suufi juróom-ñaar côté yëpp leer la maanaam bu bi su bëccëgee jëmmi doomu aadama lay yore waaye su guddee lumière lay doon léegi nag su ngeen ko mënut a yàlla mun leen koo farloo waxtu mun c'est pas ngeen di jëm ci moom dara ci lañ jël Seexul Xadim yóbbu ko ci benn néeg boo xam ni xorondoom ya fa nekk ku ñu mas a mat da ngay gëmantu nelaw ba kenn ngay faatu xorondoom yi dañuy tegaloo bàyyil fa sëñ Bamba fu mu tegub daram ñu boole ko jigéen jooju ñu waajalan takkal koy takkaay pour tóor koy parfum jigéen ji sëñ Bamba jël xalimaam def ko ca daal ji sa ko rek mu nekk mbott loolu ko téere ba nettalee pexe yëpp jeex ñu ne kii mënasul ci moom dara mm. ci la benn tubaab waxe ni maara bu bi day nëbbu tuwaay moo yàlla kenn bi ko noonu kii du yàlla kii du mooy yàlla ñu ko fookate mu ni bi nu ko jëlee Sénégal ba léegi gis nañu ni gis nu mu lekk gis nu mu naan te du nelaw te kenn mënu koo rey sëñ Bamba ne boobu maa ngi lekk maa ngi naan waaye xamuñu fan nay bàyyi ko jëm ci ci man mm. booba taxaam yi chara bi ma libaasi bi jaay yi bi la kas bin latal bëri bi bes sama lekk sama naan yére yére bi daan sol daana ma dikk ci géej gi te mosuma ko fàgg ci doomu aadama ñu ne nag ki ki ngay garde su wàccee am na koo gën a relevé du nelaw muy nag ginnaaw du lekk te du naan te du nelaw te kenn mënu mooy yàlla kenn kenn ko kii du yàlla yàlla dañuy wax ni bind na àjjana bind safara ku ko nangul dem àjjana ku gàntu dem safara sëñ Bamba bi ñu koy jàpp di ko jëlee Sénégal di ko indi defuñu dara juróom-ñettati manque ñetti weer nu libéré ko mu ne jéggal naa leen ma xam ne ku dul tooñ te mooy sëñ Bamba te ku ko tooñ mu jéggal la bu yàlla mel ni safara gent kon kii du yàlla sëñ Tuubaa li leen jaamu bu yàlla laa buy liggéeyal rasulillah yi te jubóog borom bi nag gis nga Alioune Badara natt yi sëñ Bamba yi ci géej gi buñ la koy nettali te nga bëgg koo nangu boo dul boo dul murit da ngay xool rek Seydina naa sallallahu alayhi wasallam li ñuy nettali ci moom ca ne ñaan ma ndéem ab julit nga te nag ku nangu sëñ na mujjisaat ci yonent dagan na waaye kiraama dagan na ci wàll yi sëñ bi nag mënul xamul lu mu doon wax na ni moom daal kéemaanu suñu borom la waaye mën noo adressé sax wàll yu la wala bi yonent la wala xut booy yëpp sëñ Tuubaa daal wax na ni moom kéemaanu suñu borom la baana li kulli ma la maquulu anna wasiltu wa rasulu waaye baana li kulli ma la waay walaaya kaw li xaalixal baraaya aaya kon sëñ Bamba kéemaanu suñu borom la waaye loolu bi mu amee am na ku jóge Sénégal ñu ngi indi sëñ sax seet seexul xadim mhm. mu di sëñ mët lo dagana nga ku di murit war nga gërëm sëñ mët lo dagana bam bay ko goog kok guy bisu talaata danañ njabootam soxna yi ku bëgg na mën nga ñëw ma yewi la ndax lima taxaju moy a jóg sëñ bamba ñaar nak la yemale gis cheikhul khadim indi ko ak fatou togg wa kërëm jóge kooku gis bisu talaata mu saaka ne fukki wéra ñaar mu doga a seetu seexul xadim mët loo dagana moom dem ba sëñ bamba rëccaat ko dugg ci àllub gabang bi da ko Modou Lo sëñ melu di ko ba gis ko da ko di Modou Lo suufas gabang si ñoy joy ni jaamu yalla gi ma fi def musu am on mënu maa dem mënu ko sëñ loolu da nga ne ko sëñ Bamba ndeem sof si nga gàdde si moo bëggatul nga dellu waxuma laa fa nga won ko ke kookee téere bi ne ba mu ñëwee ba mu ci kan capitaine bi capitaine bi da ko ni da ngeen di fay 450 sama la da nga ne yurul xaalis sëñ Bamba yurul xaalis Cheikhul Khadim ko demal ci militaire ya, samay talibé lañu man loo daga na ñëw militaire ni ko sëñ bay sunu sëriñ moom lañ jaayanteel waaye yoruñu xaalis si man loo daga na nee na bi may dellu si nag am na ko ma dab jox ma dërëm ne bi ma ñëw Cheikhul Khadim indi dërëm bi sëñ Bamba da la ko jox ci ñoom mun ko makka ñoom da gàntu woon nañ sax ne yoruñu xaalis waaye bi may ñëw kenn ma dab sëñ Tuubaa ne ko ma leen ba mu leen wooyee ba ñëwee sëñ Tuubaa di leen ni ku ko jox dërëm bi ci yéen ñu ko doonee mbàkk kenn ci ñun xaalis kenn ci ñun jox ko dërëm sëñ Tuubaa ko mën naa am sama taalibe ji dey la ba noo mun ko mbàkk mun ko jël dërëm bi war ko capitaine bi ku ñuy fay 450 ngay génne 5 5 francs parce que dina sotti mais ba noonu da nga génne dërëm bi tubaab ba daa mer bëgg a départ gaal gi gaal nga bëgg a léegi nag tubaab bi ser gi yeew ko ne ko maarabu léegi toogal ba mu neex la bu la neexee mu yóbbule ak ki nga àndal saa ngeen fay bi duggee ci gaal gi nag di ñibbi si sëñ Moussa Ka ne li gën a yéeme mooy dërëm ba maanaam fu gaal gi teer rek bu sëñ Bamba soxlaa këyit mbaa warga mbaa suukar mbaa xiiwal dana mënoo dagan demal waxaale lalee تجد زين بولينكو زين بولينكو أنا وقت وقت على الويز سياسة فرا ولا ولا ميل فرا ولا دي ميل بجينا زين بكو كده ريبا جاكان نيكي خمول لي بيجار جل ما سنسي ما ما يكو دلوكو زين بولينكو نك زين بولينكو سنبا ما شغل ما أنا <laughs> بني بسيه marchandise bu ñu indaale dërëm baax ko jënd dërëm génn ma loxo ma loo dagal sëñ Moussa Ka ne mu loo dagal li muy dund ci àddina dana bàyyi faj aajoom bitik bu mu dem bëggee piis mbaa warga mbaa suukar mbaa ceeb dërëm ba lay génne kooku may ko loolu delloo ko dërëm ku mën a seexalub dërëm jëmi doo mën a doxal ñëw kooku xaaj bu rus xam naa ne eh, ñàkkul waaye mënuñoo mënuñoo ñàkk tënk bi bi bi mu ko jëlee Libreville mm-hmm. diggante Libreville ak Lambaréné ñaar téeméeri kilomètre la ak juróom ñaar fukk mhm. ci lañ toxal sëñ bi yóbbu ko foofu mhm. euh, léegi lambara googu sax sëñ doo ngay wax ni fa la fa sëñ Modou Lo fekkoon ci mooy waaye nag li gën a yéeme mooy tax sëñ Tuubaa daa du tudd baat bi du tudd dëkk bi mhm. moom galwaa lay tudd galwaa mooy mooy race bi rek léegi nag dañ ko yóbbu fi ñu ko indi ak dëkk bi toll na ci kilomètre ñu ndi ko ci benn benn barabam ak dex moo fa dex googu euh, ay mango fa saxu benn taatu mango digganteem ak dex gi sorewul fa la sëñ Tuubaa nekkoon jóge ci benn barab di ñëw foofu di jàpp te génn léegi nag foofu mu ne woon fa la sëñ bi nekk am ñu koy def nag bis weer wane ñu jox ko fukki dërëm sëñ Tuubaa sànni am na ko ni wax Renago nee na baayam moom moo wutoon mbaar ci wetu sëñ bi fukki dërëm yi naan jox sëñ bi moom mu ko daan jël bu ñu ko sànn bu ko sànnee moom mu jël ko ba mbenn bis muy taw taw bu metti ñu daal sëñ bi nekk ci yenn bagage mu bàyyi ko yenn yi mu taf ko ci dënn bi taf ko ci garab gi wéeru ci noonu taw bi sotti ko ci kawam moom mu ñëw ci biir taw ba ngelaw ne ko damaa bëggoon nga jël bagage yi ñu dem sama kër su ko defee nga nga ne fa waaye bu bu nu xëyee na nga teel a jóg su ko defee ñu gaaw ñëwaat ma jàppale la baar mi mhm. su ko ndax bala maa tubaab de ndax bu ma gisee dinaa am problème ba ma ànd sëñ bi ba agsi ci kër gi e, néegu boppam ak ak waañowee fi ne mu ne mu ni sëñ bi léegi damaa bëggoon ñu ñu nga ñëw man ak yow ak soxna fi ñu jàpp bagage yi génne ko ci waañ wi sëñ bi ni ko déedéet yow rek doy na waaye soxna si jarul muy ñëw ban mm-hmm. génnee bagage yi ba noppi ñu fat ba ci suba gi mu jóg na ñu jël bagage yi mu ànd ak moom ba ci ëkk ci fi mi ci defar mm-hmm. ko ci fukk fukk fukki weer ak ñaar moom waa ji diir boobu nag ñu ko tëjee nag ci la tubaab bi wax ne comme ñoom dañ doon jox sëñ bi fukki dërëm mu mu koy sànni xam naa da koo xeeb mm. léegi nan ko denc ba mu mat at muy téeméer ak ñaar fukk fu ko defee bu ñu ko joxee dina ko jël. Mm-hmm. biñ ko biñ ko dajalee nag ba mu mat at ñu mu def ko ci menn mbuus capitaine boobee def ko ci menn mbuus ñëw ci sëñ bi di ko signalé di ko wax ne ko yow kat dinaa jox fukki dërëm nga koy xeeb tey nag téeméer ak ñaar fukk ngi nii. ba mu ko joxee sëñ bi sëñ bi wëndeel ko rek sànniwaat ko ko mu dal ko ci jébbi mu xaañu ba mu xaañoo moom moo dem Njole dëkk bu neex Njole mm-hmm. digganteem ak Lambaréné juróom fukki kilomètre la mm-hmm. ba mu demee Njole daal am benn tribunal militaire bu nekkoon foofu mu kalaame fi sëñ bi ba mu fa kalaamee sëñ bi nag ci lañ ci la sëñ Tuubaa jógee nag Lambaréné dox nag jëm nee na dox da koo dox dem doxat ko ñëwaat. Mm-hmm. ba mu demee Njole nag foofu la gisanteeg Samori Touré ak Franky Mori. Mm-hmm. ba mu gisanteeg Samori Samori uh, dénk ko boppam. Mm-hmm. dénk ko ginnaawam. ñu dem ba jamono ñu mu yónniwaat Franky Mori mu ñëwaat sëñ bi waxaat ko sëñ Tuubaa ree ba mu ko waxee sëñ bi dafa ree ni ko xanaa sàmm yi xamul ne li ka dal moo ma dal. Mhm. maanaam loxo yi mu nekk ci laa nekk ñàkk jot gi mu ñàkk jot ba mënta dem fu ko soog ci loxo yooyu laa nekk waaye nekk saa yu faatoo ba dem ci bàmmeel bu ñëwee fekk ma fa. loolu sëñ Tuubaa wax léegi nag bi ñu bi ñu attee euh, euh, tubaab bi ak ak sëñ bi capitaine bi sëñ bi ñu jox sëñ Tuubaa dëgg. Mhm. bi ñu ko joxee dëgg moom dellusiwaatu dafa faatu. waaw boo demee ci mbindum sëñ Tuubaa sëñ Musaa dafa faatu la wax. Mhm. ba mu fëj sëñ tubaa jógee Njole nag. ñëwaat nag làmbari ne nag benn bi sa toog ba mu yàgg rek sëñ Tuubaa jàpp jublu ko ndax yëg nañ sàmmoor yi faatu na mu kabar kabaraat ba ñeenti kabar mu sëlmal mu ne moom sàmmoor Touré loolu julli loolu nag ko roy yonent ci najaay si yeeg yonent bi sax xam naa xam na loolu léegi ci foofu nag bi tubaab boobu bi kooku faatoo nag ku nu dénk sëñ bi rek nekk pour mu yor ko mu bañ kun ko jox mu bañ ci la duduma mbay jógee Lodima boobu du wàññi la woon mm-hmm. bi mu ñëwee Lambaréné daan ne bu ngeen bu ngeen ma defee commandant dinaa ko mën a yor. app ñu fal Doudou Mbaye commandant léegi nag ci la jël sëñ bi nag yóbbu ko jël ko nag Lambaréné nag yóbbu ko Mayomba. Mm-hmm. loolu mooy Mayomba googu ñaarat la fa am. Mm-hmm. mu tombé ndax 1900 eh, la fa dem. Mm-hmm. bu dee comme ni ñu ko tegalee taarix bi ba 1902 muy ñaari at léegi nag décret décret bii nga xam ne moo génn sëñ pour ñu ni sëñ ndongo doon wax ñu jëlee ko Mayomba yóbbu ko wér-wér mu eh, le 18 août la. la non le 18 octobre. 1902 lañ yóbbu sëñ Touba. Riir Riir waaw le 18 octobre 1902. mu ngoog xam naa ca bu mu jógee wiir bi dafa mel ni si la kon ñibbisi no mu jógee wiir dafa ñëwaat Mayumba uh-huh. toogaat ab dir mooy sëñ donga wax ba waxtu uh-huh. a a ñibbisi macha allah sëñ Xaadim xam naa ni moom lu jëm may yi mu jëlee si géej gi uh-huh. kooku émission spéciale lañ koy ah, jagleel li may tàggoo rek mooy di leen sant baax di leen <laughs> gërëm ndax xam naa a xet waaye li may tënk rek mooy ñu xam ni li ñu doon waxtaane jubluwuñ ci waxtaane yoonu géej gépp ndax loolu xajul ci benn jataay xajul sax ci ay jataay dañ ciy jukki rek wax fii wax fii dajale ko mu nekk suñu njariñ waaye yooyu yëpp liñ ci gën a gën a dégg rek mooy ñun gëm suñ tubaa te wóolu ko te jàpp ko te xam ne képp ko jàpp doo sooy doo sooy adduna doo sooy àllaaxira ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ban di siyaare ñu fi woote soxna Seynabou Thiam ak mm-hmm. suñ Mbaye Ndiaye monsieur Mbaye Ndiaye mm-hmm. ministre di borom këram eh, soxna maam Diarra ak soxna Kine Saliou mm-hmm. di siyaare bu baax a baax nag Seydou Rahmane Fall Tilali moom itam di ko baax di siyaare bu baax sëñ Babacar Babou asilam Grand Yoff ak ki nga xam ne mi ngi moo di Mamadou Diop dëkk seen benn tali di siyaare baax a baax eh, mboolem ñi nga xam mi ngi doon seetaan sëñ Xaadim xam nga ni moom mufti la xam nga noonu naa la eh, dañ koy dalal beneen yoon tabarkàlla bég nañu bu baax a baax ndax xam nga lii di am solo Serigne Touba yàlla da ko jagleel ay mayam yoo xam ne da ko bennoo yoo wax na astabiinu lii yàllaa ma ko jox dama ko bennoo aw ma ca ñaareel lépp Serigne Touba kéemaan la yàlla seet la ko neex mu mel ni Sëñ Bamba moo tax ni ma neex ku mu naqari ni ma mel ku mu naqari waxal ak borom aras mm-hmm. yàlla seet ne ko neex mu melal meli kon maanaam nangu maanaam bokk ni sant liimaan nangu dogal mm-hmm. Sëriñ Tuubaa li ne ci moom yàllaa ci def moo boo dee jaamu yàlla sa jaamu yàlla dëggu yàlla nangul la dangay nangu Sëriñ Tuubaa mm-hmm. Tuubaa li man amana ahlullaahi wala li man ankarum billaahi sëñ Bamba ne texe ñeel na ko nangu gaa yàlla yi mbugal ñeel na ku leen gàntu kon sëriñ bi foofu la ne ma li muy wax nii tuuti na ci li ko yàlla may sëriñ bi kenn xamu ko kudul boromam xaabat maqaam yi an siwal baaxil karim nee na kudul yàlla na ma tollo fa yàlla ump na la ci la boole ñëpp na kon du ku ñuy xam ku ñuy xamee moom la salaatu wasalaam ala rasulillah bay ah, ah, jëy bëgg nañ loolu wax dëgg yàlla xam naa dañ leen koy ñaan na ngeen indiwaat beneen jotaay boo xëy ne liñ si mën a tënk mooy may yi sëriñ bi jëlee si géej gi kooku xam naa ni moom mooy ponc bu ñu bëggoon a tëjee di jégul mbokk yi tamit si ñàkk tëjaliñ bi ndaxte waxtaan wi moom moo ni tolloon moom moo tax xam ngeen ni Serigne Touba mu ngi noonu yoonu géejam gi kéemtaan la waxuñu ne sax ñuy fii si Ndakaaw ak yi ñuy màggal waaye ba si fi mu jaar si si barab yi faram-fàcce ko soo xoolee màggalub euh, kon Grand Bassam xam nga ni euh, sëñ Mourtala mu sëñ Abdoulaat mu ngi koy def at bu jot waaye lu mel ni euh, màggalub foofu la si Gabon sëñ sëñ sëñ Maam Mor Mbacke Mourtala mu ngi fay def saasu su ne kon ziar mbooleem ku si mel ni sëñ Siaka Mbuub mu ngi mu ngi nuyoo si si ligne bi ñoom Kiné Fat Thiam Saliou soxna Kiné Fatou Thiam Sarr soxna Seynatou Thiam ni ko bàyyi doon ko waxee ak soxna Mame Diarra Cissé ñoom woote nañ sànq jaajëfal leen bu baax a baax mboolem mbokk yi doon teewlu ak ñii nga xay bëggoon nañ dugg te mu xat ak ñii ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox daje incha allah beneen alxamis si beneen tam wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Serigne Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima وجمع المفاصل وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجب المصالح ولا حول ولا قوة